barkeel yëngati yi barkeel dal yi mhm. ci zaahir ci baatin mhm. waaw ñun sigi nañu kontaan bu baax mhm. te suñu xel gën dal aussi tabarakallah ndax euh, bis yi bis yu yu am solo la ci doomu aadama waaw Seydina Isa wax na ko nee na maa ngi woo jàmm yàlla ci sama bis bi mu juddu ak bis bi ma faatu ak bis bi may dekki yow ma wulittu wa yow ma amuutu wa yow ma ubaasu xayya ñetti bis yooyu bis yu bis yu doy waar la bisu judd dee ak bisu dekki waaw donc nag euh, bi ci dikki bi moom ñëpp a ci jaar yeneen yi amuñ ci conscience du ñàkk euh, bi mooy euh, judd bi duñ dee gi tamit naam tabaarakallaahu dekki nga bokk duñ ko yëg waaye dee moom ñëpp ci jaar mhm. yal na yéex mhm. barke alxuraanul karim mhm. kontaan nañ bu baax a baax siggi nañ bu baax nit ku nekk tamit waaw ah, sa xol rek la yàlla di fay macha allah ah, taxawaayam day taxawaay bu dal xel ndax tamit eh, keroog moom ci xale yi ku ma woo mu ne man sama rêve nekkul lu dul lii sama bàyyi li ma sama bàyyi transmettre mhm. ci gëm yàlla gëm yonent bi gëm Cheikh Tidiane gëm Cheikh Omar gëm maam alaaji mhm. mu ne ma loolu rek laa dama ñaan yàlla am soxna am doom ba transmettre lañ ko te kooku la moo ngi euh, enseignant la professeur mathématique la man musuma xalaat ni

pleine su ñu naan di wax expliqué ma wala ñu bi yëpp sax waaw su wàccaan ñëw foofu du fayee ko am na benn pochette bu bu bu marron bu mu daan yor da ci génne ay biir yu bëri buy bees jox góor gi ndeysaan góor gi xam ni taalibeem la waaye doomam turandoom la waaw surtout ñoon rek day da koy daytee def terrain bi wàcc waaw donc loolu fekke nañ ko ay yoon ay yoon ay yoon Euh, sabab dundam yëpp ci loolu la ne ba maam Alaaji faatoo su ko neexoon mu ne sama su ma turandoo ñaanal na ma libéré na ma defal na ma ijaaza jox na ma li ma war a am yëpp hmm? waaye dafa euh, demaat sukkaat ci kanamu son papa Cissé jox ko boppam lépp lu mu defaloon maam Alaaji mu multiplier ko par ba jël do deretam jox son papa Cissé mu jël doomam jox ko mhm. ba tey ji ñu am ci ay jarbaat mhm. mhm. waaw kon nag loolu du du du ay caaxaan te papam su ko neexoon mu def affaire ndax libéré nañ ko wan nañ ko jàngal nañ ko ijaasaal nañ ko yàlla def na am na ay lim bu rëy jaar na ci loxo dugg ci tarixa te du nekkoon Sénégal mm-hmm. c'est facile. Mm-hmm. Sénégal mën na may doom wér doom wér doomam ak ay jarbaatam mm-hmm. ak i ñi ko yaakaar foofu ndax njariñ ak yooyu. mais ca Mali ca Dogon ya ñu gën a dëgër bopp. lay ko yàlla nooyalal ci barke sëriñam. ñu tuub dugg ci islam mu may leen wér tijaan mais loolu sax loolu du ko ko yàlla defalee ñu ñëpp la ko yàlla defal waaw loolu dañ ci sagu di ci ndamu ndax loolu mooy doole sëriñ. dama wax toujours tout talibé définit son maître mhm. waaw soo bëggee nag sëriñ sëriñ bi bàyyi ko mu tëdd bu ko lijjanti mhm. dama xol ay talibé mhm. lu ñu peser rek defal la somme moy poids au sëriñ je parle de valeur waxuma nombre waxuma alal waxuma xaalis ak yoy dédét je parle de valeur et de vertu ak ngëm ak ragal yàlla wa kon nag taalibe bu mel noonu soo ko hmm, euh mu am doom am ay doom waaye mu am doom ñun kii lañ xam moom lañ fekkee moom lañ bokkal mu taxaw taxawaayu papaam te doo xamee papaam bis ni papaam def rek lay def nii lay groupé ci ni la daan def ci kanam Mame Alaaji bi muy wér ni la daan def ci kanam papa Cissé nii toog ci suuf nit ku am eh, kii la ni daraja waaye du ko wane de waaw mag rek moo tax muy toogandoog seen bis ci kaw waaye mosu ko def donc loolu

Euh, ñu baax lañu parce que dañoo gis nit yàlla fekk ñoom ay nit yàlla lañu ñu nangul nit yàlla am na yeneen nit yàlla yoo xam sax duñ tiijaan seen maam ñoo leen jox lañu yor ci ay teraanga ci ay suuf ndax nit teraanga lañu waaw donc ñun xam nañ leen bu baax macha allah suñu suñu sunu papa sëriñ Abibu Njegen soxnaam su mag seen kër la jóge du moo fa njëkk a dugg de déedéet Lamine dafa topp tànk yi rek mais ay baayam ñoo fa njëkk a am fa ay doom yu mag suñ daam njigéen ñoom euh, euh, ñu am ay sët yu mag yu mokkal alxuraan hmm. ñoom ñëpp seen waa ñu fen hmm. am na ñeneen ci famille bi ñu fa jëlaat doo hmm. leen ba tey jii ñu amaat fa yeneen jarbaat kon ñoom moo tax sànq ma wax ne jël nañ ci ñun ñoom jël nañ ci ñoom keroog euh, Cerno euh, Madani bi Cerno Bachiru ñëwee ci ñaanu Cerno Habibu Taal te Thiès dafa wax ne li Cheikh Omar fuuti radiyallahu anhu waxoon ne yéen waa Njëgëneen sama deret mooy daw ci yéen mu ne lii preuve bi ko wax de lii preuve mooy jël nañ ci yéen jël ngeen ci ñun waaw ndax doomu Alaaji Mouhamed Njëgën sëtam jël na sëtu Cerno Muntaga Taaxa mais ne le nañ ci yéen jël ngeen ci ñun kon la Cheikh Omar waxoon Thierno Seydou Nourou en 1980 ne direct Cheikh Omar mooy daw seen preuve baa ngoo ko waaye li tamit la preuve mooy mu ngi nii. Mhm. te yu bëri mën naa wax mais bon euh, temps bi mayee ñu ko et puis day mel ni sax ndamu la ak yooyu. <laughs> ñu nekkuñ ci mhm. mais c'est pour pour pour vous dire que euh, on est en famille. Mhm. macha kon nag euh, Ibrahim Yalla Yalla yàlla barkeel. su ma paree sëñ dina jël kàddu incha allah. Euh, soxna si jërëjëf ñop mm-hmm. ñoo lay ndokkeelaat ci sa mm-hmm. sët bi. Mm-hmm. macha allah. euh def na lu rafet def na lu baax. sagal nañu ñun ñep ci jël nga ay mbokki Ibrahima dinañ xam ni. euh fu baax la dugg. parce que ni tamit lu reuy la. c'est pas évident ñoo ngi fii fi bëgg def ay fan. waaye léeg-léeg

daraan dem ba ci benn euh, benn trou boo xamante ni mbëtt ci dëkk mhm. trou bi mbëtt bi nekkatu ci sax mais bu ñëwaan ci wetu euh, trou bi day su may daalam taxaw ñu ne ko lu tax mu ne fii benn bis dama feroom bu benn mbëtt génn mhm. mbëtt mi bi mu génnee mhm. euh, di mbëtt mooy baraamo wala waaw waaw borom borom génn bu gudd bi tey waaw mm-hmm. ah. lézard varan euh, mm-hmm. genre yooyu la daal mm-hmm. reptile la daal euh, nee na mbëtt mi mbëtt mi génn ci ci ci ci ci ci ci kàmb bi daal may nuyu yonent bi moom danaan wax ak ñëpp ak garab yeeg yëpp dan wax ak moom wax na sax benn bis mu ne garab gii garab gu ma garab gu ma xam la ndax bi ma dama bu ma rombaan fii garab bi damay nuyu rek waaw daan wax ak garab bi <laughs> mbëtt mi ne ko euh, ne ko man dama laa bëgg yow yonent bi ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ne ko man dama laa sopp lool bëgg la mu ne ko man nag benn rêve rek laa amoon mooy amoon doom bu jigéen ba may rek bëtt amoon doom bu jigéen ba may la ko yonent bi ne ko kon da ngaa bëgg a goranteeg man mu ne ko waaw man loolu rek laa bëggoon léegi nag pour respect boobu ak euh, euh, euh, gorante boobu mbëtt mi bëggoon moo tax heure bu yonent bi ñëw ci turu mbëtt mi day ñëw taxaw foofu ñu ne ko lu tax mu ne dama koy respecté sama sama goro bi donc goro <laughs> goro lu sérieux goro lu sérieux la ku la may doomam sin bi mënatoo ko fay toog ko fay déedéet mënatoo ko fay nit a gi noppam c'est sacré donc nag macha allah euh, bëgg na sigg nañu dalal la sunu xel aussi suñ fi ñëwoon rek daf li ñuy def tamit bon dina baax waaye nag toog bi nga toog yëkkati na niveau yi waaw wan nañu leneen am na lu mu defaat suñu xol waaw parce que ñun njabootu kilifteef la donc am ko gisee rek dañuy xam ni li ñu teg wax yoon tey jii am na nu Ibrahima meloon loo bëgg-bëgg sa doom doo fi teg sa waaw waaye am na loo yaakaar am nga loo gis am nga loo njort am na loo sa doom wax moo tax nga ñëw taxaw taxawaay bi yàlla na ko yàlla fay fii ci àdduna ak ëllëg yow ak yàlla yaakaar bi nga am ci Ibrahima ba may ñu ko may ko may ko sa doom yàlla na ko yàlla tas ak alquran al karim kontaan nañ jaay jaay jëf yéen seen taxawaay yàlla yàlla barkeel kon damay ah, Amady ñu ngi lay nuyu bu baax a si ah Amady waaw ah, ah, jaajëf waaw góor jaajëf sama docteur noo def <laughs> waaw waaw fa la ñu <laughs> nekk di coow rek si si ngaar yi alhamdulilah allah macha allah keroog maa ngi jot aana sax yàggul bi Ibou Dia faatoo mu may woo di ma ko jaare mhm. ah, bàjjan moom gisante nañ gisante nañ ay yoon Sénégal waaw ah. xat-xat yi waaw ak yéen seen seen yi yéen kenn vous êtes très sollicité je sais damay laaj kii ne seen toujours ah mashallah ah ah si si si ya leal berkat amin amin si ah yóbbu taali bi rek ah waaw ah taali bi rek yóbbu taali rek si ndeysaan ndeysaan si ngaari albarka jërëjëf waaw maa ngi toog ak bu sëñ bu Pape Cissé Seydou Ndiéguène waaw Amady Sy Adama Fall waaw alaaj Cheikh Sy nga jaayi sa waay <laughs> ci jàmm rek alhamdulilah daka njaboot bi baa ngi fi jàmm alhamdulilah sant yàlla sant yàlla si Ça va. C'est bon, On a plus

drac wala. non non c'est ici c'est mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam nga doo lambee sa xol. yéen woo kenn safaan. Mm-hmm. waaw kooku mooy waaja. mais doo amee alal bi dul jeex wala nga xam lu nekk. mokkal téere yëpp. te yow dunda tëralee sa morom nga rendi ko. kooku jarul tuddloo doom jarul julleloo néew jarul defloo dara. waaw waaye nag koo xamante ni yaa ngi dund sa dund gu sell. li nga mën ci lu baax nga koy def. tooñoo kenn duggoo ci kenn. waaw kooku moo war a tudd parce que euh, xale. doo koy tudd dafa am ay énergie yooyu dégagé di ko jox. Mm-hmm. Mm-hmm. am ay énergie yooyu dégagé di ko jox ay énergie positive. Mm-hmm. ay ondes yu positive ay ay leer ay xéewal. waaw léegi nag kooku doo jëlee n'importe qui jox ko sa doom attention. lu ko dal ëllëg yow na wa ah. <laughs> tax ma ne ko tuddal. parce que man je connais son cœur xam naa nit ku bax la. nit ku bax la. waaw parce que euh, ken musul dégg. say do wax li wala mo def lii ah non. man de musuma ko dégg ku mandu la ku ko dégg te loolu mooy affaire bi pour man mm-hmm. mais am na ñoo xamante ni ci da ngay dégg ñoo dañuy wér dëgg dañuy def ñe dañuy dugg ci lii te fu ñu toll lu ñaaw wala lu yàqu ñoom la mm-hmm. kooku sëñ bi mm-hmm. ñi euh, naafiq yi ak ñi amul valeur ak ñi xamul fuñ jëm ñooñu rek ñoo lay naw mais am na ñoo xamante ni nitu valeur yi la ñuy wër

nga def ko benn yoon ñaari yoon mm-hmm. après mu jàll xam nga léeg-léeg nga ñëw toog mm-hmm. euh, góor gi ne la bismillah dama taxaw julli mm-hmm. jeex na soo ko defee benn yoon ñaari yoon nga xam ni moom sa ginnaaw sa xel dal waaw du kii nga ñëw mu ne la damaa soj mënuma euh, tudd xale bi ndax wóorul dama koy wàll sojul moo ko def exprès pour nga tudd nga tudd ci kanamam soo juumee soo paree mu wóor ne laa ah, defeel nii ak nii ak nii nga dem mais noonu formation bi loolu la loolu la euh, yooyu mooy affaire bi te li ma la wax la base mooy fii mooy fii ku lay ju ku lay jullee doo dee ku lay tudd doo juddoo kooku dañ koy seet de benn nit yàlla nee nañ loolu la wax taalibe bi dafa nekk ak moom bay waay de faatu woo morom taalibe bi ne ko lu mënti am sëriñ bii du ma dee bu ma jullee wax ko secret la ne suñ demee ba ca kanam mbooloo ñëpp monde bi yëpp dinañ ñëw taxaw moom dina bëgg a waaxu pour ma ndax loolu yoon mhm. waaye du boobaa taxawal nga ne ko bu mu julli su su insister nga wax ko tax su insister wul nag keneen jullee ma waaye bi comme loolu xel mënu ko nangu nee nañ bi daal ñëw taxaw daal ci sama taalibe xaw ma la nag la wax wax bëgg ne bu ko jullee mu ne ko kii sama taalibe kii li ma se wax ko mu ne ko nee na bul daal bu ko jullee mu bëgg insister taalibe daal ne ah moo ma waxoon ne ma sama sëriñam bii bu mu ko jullee mu ne ko waaw lu tax nga ne sëriñ bu mu la jullee mu ne ko sëriñ bii ba ma nekkee moom ba tey musuma gis ko mu jéggal ko il n'a jamais pardonné ku juum rek mu mu mu dal sa kaw moom ni mu def ak man ni mu def ak ñun ba ma nekkee moom ba tey noonu la yàlla def ak ñun musiba am te damay bañ loolu déteindre sama diggante ak sama borom ba réew ginnaaw puus ci la defaroo moom ci boppam xam ne àdduna soo bëggee yàlla jéggale da ngay jéggale kon pour wax la ne la doo fee da xam-xam mm-hmm. Mm-hmm. c'est ici mm-hmm. c'est dans le cœur waaw donc nag euh, suñu xel dal na bu baax njëriñ jërëjëf kontaan nañu su la neexoon tamit nga def affaire sëriñ te du boobaa tamit dara du ci dikk waaye nag xam nga ni ñun seen i lañu te euh, ni ñu sëñ aas yilifee mhm. maam alaaj yilifuñu mhm. nga xam ni lu ñu fekkee ci mbooloo mhm. wax ñu ne ñu defal lii ñu def ko yow it loolu nga ñu defal waaw kon nag euh, sant nañ bu baax a baax jërëjëf guddal fantaam wér euh, yàlla yokk say xéewal yokk say sutura yokk say teraanga barkeel say yëngatu ak say dal euh, tabaarkallaa njëge neen yàlla bu ci bu la ci kenn ëppale muy ci zaahir muy ci baatin muy ci zaahir muy ci muy ci baatin di sama mbisit la yàlla bu la ci kenn ëpp mm-hmm. yàgg sa soxna si baax mm-hmm. allah sunu tukulóor bi mm-hmm. <laughs> macha allah yal na yàlla gën a dëgëral barkeel xéwal yi yokku teranga yi yokku bu regretté nga regretté kenn ku loo yéexee di seeg sa morom yàlla na ko yàlla def barkeel te incha allah noonu lay demee waaw ah, dina baax góorgóorlu taxaw rek yëf yi moom yombul c'est suñu yaay yeeg suñu baay yëpp dañoo mm-hmm. soox rek waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, léeg-léeg mu metti léeg-léeg mu saf léeg-léeg mu réeroo léeg-léeg mu jaxasoo waaye dara ñu góorgóorlu rek jàppante mu ñëlante xam ni euh, adduna bi ba ni mu toll yëpp kii la la yàlla boole jeex na avec ses défauts avec ses qualités waaye ah c'est ça <laughs> c'est ça nit euh, ci ci droit patrimoine signifiéwul rek li nga am ci alal mooy say alal ak say bor ah mooy say alal ak say bor

sa sëriñ tamit noonu lu lu lu mu am am ay kii tamit am na mm-hmm. loolu neex te moom loolu doo bëggee am jàmm loolu ngay activé mm-hmm. da ci des nga bàyyi mu sedd loolu duy takk rek yeneen yëpp day fay mm-hmm. jàmm na ñooy ku nekk avancé dem surtout ñun suñu ruq yi nga xamante ni ki nga nekkal doo jubóol ak moom fooy jëm koy waxal koy waxal mais mënul mu démb laa koy wax benn mbokk ma ne ko xuloo mënu fee nekk fii <laughs> moo tax il Mais c'est pas possible. <laughs> Vous êtes deux dans la maison, vous êtes trois dans la maison. Non, non, Vous êtes obligés de communiquer. Donc, on a euh, sahal diamant, cultiver diamant, cultiver communication, échange. D'or, c'est d'or. Khamni, qui est pour que les. bëgg un xañ mon moom diamant. ci jàmmam benn que daf ma ah c'est quoi qui est na wax ma ça sama jabar ji ma ne ko moom ana ana jabaram moom ma ne ko ma ne ko su ma ne ko déglu ko comme kilifa la mhm. su la woowaatee waxat la mhm. ne ko bu ci am benn kersa ma ne ko wax ko ne ko wàccal sa soxna ma wàcc sama soxna ah. ma ne ko pour te yow li ngay problème yi nga am ak sa soxna ne ko moom man xam naa ko am na saam ma ko sikki yi muy wax soxnaam ma ne ko soxnaam sa soxna yow saam moom soxnaam te moom ko téye ma ne ko doo dof dofloo ba wàcc sa soxna. ma ne ko ci lal bi nga yéex xaaral ma di xaaral ma dee ma ne ko da ngay xëy di tàngal ndox ma ne ko ci ngay ci ngay jëm de. di da ngay ma ne ko da ngay souffrir. ma ne ko mu ne ma ah ma ne ko ma ne ko du la ko waxaate waxaloon waaye wax dafa la yem. <laughs> waaw man man ki may wàcc la sama soxna mooy ki wàcc soxnaam. Mm. wàccal ba noppi. Mm. waaw yow sedd bu métti bi yëg coono yu métti yi <laughs> bëgg bëgg laa bàyyi soo ko amagul sax garaawul mais am nga ko xam nga ko waaw ni waaw xam cuuraay xam lii xam la ci def ñu bëgg ñu bi ci ay wax ak ci ay kii ah wàccal ko nag ma wàcc jigéen du lay tas loo a di moom na tas ba pare mm, mm. ah parce que fenn neexul mm. maa la wax li am ah. dëgg

caprice yooyu mooy neexal àdduna nga caprice yu jigéen yooyu loolu ñuy tuddee caprice ak réew de kooku mooy xorom si su amatul nga wàcc ko mais dootul neex il faut que ñuy reewantu di indi ay affaire di di indi di di di la yooyu mooy xorom si sëñ mooy non Ndiobo xam na léegi. léegi li woowee koom bi. gis nga moo ñu woo koom xam na léegi.

waxtu du jot de mhm. waaw il faut être tranquille Il mhm. l'essentiel' loy def soit quitte avec ta conscience ak sa diggante ak sa borom rafeto ak say ak say kilifa mhm. jeex na mais yeneen détails yëpp il ah. la koy lay ci détails yooyu ñoom ñoo dund seen dund am ñoo dund seen dund def leen neex

tey baña wax limu bëgg wax. <laughs> di def li mu war a def tay baña def limu bëgg def. frère sa sama waa Omar la. mu woko ne ko fra wax jooju non muy résumé am ala alaaji di résumé niveau ak station fi mu toll ci yalla mu ne loolu ku yàlla inspiré mu mënoo ko wax. mu ne wax jooju ku ko topp sa aduna bax sa bax billahi

si c'était à refaire do do ko defat donc wax jàngoog yàlla yalla mo lay di ko defé on est en famille. ma jox Serigne bi Moussa ni kàddoom. inshallah allah ñun ñëpp dinañ ci bépp indi kàddu Serigne Ahmed Cissé njëgën suñu bay indi cadeau famille ba yëpp. man dama doon damay coordonné rek tay tey jii mom mo représenter famille c'est le plénipotentiaire ah, euh, de la xadra macha suñu àggalee. soxna si Diop moom it macha allah mu sànnee kàddoom tabaarakallaahu bu paree bokk yi tamit ku ci bëgg a wax dara mu wax ko ak sama tukulóor tukulóor du koor jotee moom seen wax du bëri dañuy def ay live quoi mais mais koor gi nii sa waay ñaari moo lay wax ah non sëñ bi waxtaan wi am na solo neex na donc waaw kon ma jëlaat kàddu te bu dul koor nag day jël di expliquer naan non xam nga loolu ay mathématiques la ay ay limites la xaw ma na rek la mais fan yi bi ñu ko joxee rek waa sëñ bi lépp wax ngeen lépp ko du koor jotee nii nga wax du mu dégg dara. du ko defee incha allah ku ci bëgg sànni kàddu. nga sànni kàddu kon sëñ sëñ bi indi kàddu kilifa gi ak uh, waa njëgën yi ñëpp incha allah taala. bisimilah. yow moom ko waxee waaw mais loolu la baax Ibrahima moom comme suñu suñu frère la. ñoo màggal loolu ñoo jàngandoo alxuraan suñu tam mm-hmm. après kenn ku nekk jël yoon boppam. Mm-hmm. ñu fekkante fii sant yàlla sant yàlla baax na mm-hmm. euh, nit ko tamit nit ko oyof noonu la oyofee ñu mën ko jógloo facilement mm-hmm. sëriñ ci dëkk bi moom mm-hmm. yombut euh, am na ñu ñu am njaboot te mën leen tudd donc ay naa rek ñëw tudd bi nga xamante ni jigéen Mambaas moom fii bu mën ñëw tudd ñu suñu njaboot yi ñëw taxaw taxaw kii taxaw fu ma malade ñu dugg ci oto rek loolu ko wax ni ko bu fi boo fi nekkee yow. Mm-hmm. mel na ni maam Alaaji fi nekk. bu mm-hmm. fi sa papa papa mu mm-hmm. ni maam Alaaji fi nekk. dëgg la boo fi ñëwee taxaw day mel ne rek yaa fi taxaw ñëpp. ñun dañuy sant yàlla ci loolu. ci sa oyof it ci sa disponibilité. vraiment ndax moom mën nga si mag nga. gis nañ fi ay kilifa yoo xamante ni. voilà fonk ñu noonu seen njaboot waaye. sant yàlla ñu ko fi nekk. am na loo xamante ni suñu jaay fi nekkoon avant. li ngay nekkatu fii moo ñu marché li mm-hmm. yaa fi nekk mm-hmm. sant yàlla ah, ño yéne yeeg yëpp yow la ñu sollicité mm-hmm. te alhamdulilah <laughs> daf ñuy wàcce ñun benn fois fekkee ni léegi dañu bu ah, waaw mu koy bàyyi madame laay woo ma la woo madame laay woo ci madame laay jaar <laughs> dëgg la sant yàlla sant yàlla bu baax ñu daal ci ci ci ci soxna si suñu xol seet na ci ci Ibrahima alhamdulilah bu ñu fa demee euh,

sama maam moom xam na ni. bala koo taalibe gëm sëriñ yi ñoo gën a gëm. Mm-hmm. xam na loolu bu baax. Mm-hmm. waaw te loolu loolu chance bu rëy la. Mm-hmm. waaw dañ ko bëgg soxla ko moom wax nañu ko sax mu ne man man yëg naa ni da ngeen maa bëgg. waaw kon nag alhamdulilah. te loolu la ñuy doxalante suñu biir. ñun ñi kenn ku ci ne ku ci gis sa morom maamalaay nga koy xoolee. waaw du ko defee nag euh, ñaan yàlla. loolu gën a sax mm. gën a gën a baax mm. ndax loolu tamit moom la ñu mag ñi bàyyee mm-hmm. te loolu mooy dalal suñu xel mooy dalal xelu mag ñi mm-hmm. tey jii mm-hmm. képp ku baax képp ku bokk ci askan wi walla ngay jullit rek sax soo gisee jotaay yi di nga kontaan dégg sa xel dina dal dinañ xam ni ñoo ngi ci àll bi mais dañuy wax ne picc a ngi ci kaw mais xel maa ngi ci suuf te bagage yëpp a ngi fi. Mhm. waaye nag dafay toll foo xamante ni. ah sëñ bi ñëpp mënuñoo dugg xalwa su boobaa kenn kuy lekk. <laughs> ah donc kan mooy kan mooy xewlu. <laughs> nu ñuy lekkee il faut que ñii dem fii ñii jaar fii ku nekk dem. loolu yëpp nag ci xadara bi la day dellu si waat. tôt ou tard dañuy dañuy ñëwaat taxawaat li ñu war a taxaw. waaw loolu rek mooy mbir mi moo tax kenn ku ci nekk nekk ci bokk nekk ci kii waaye lépp ñoo ko bokk. Mm-hmm. te lu dajee jotee rek day am mm-hmm. yàlla ko yombal mm-hmm. waaw ma nga kon euh, Ibrahima nga sànni soxla si mu soxla insha allah taala jéggal bu euh, bi ñu ngi bu baax baax a baax a baax baax suñu xol sedd na alhamdulilah suñu xel dal na vraiment li ñu euh, yaakaaroon aussi gis nañ ko si ni bu ñu yàlla may jàmm ah dinañ gis dër mamalaay yàlla def na ko ñëw nga suñ sëriñ ñëw na donc ñu ngi sant yalla ba di leen gërëm ci taxawaay bi di la wax ne rek vraiment taxaw nga taxawaay bi rafet na si lépp lu fa xew ci xew-xew diine bu ma la woowee même boo amul temps di nga xool non organisé wu daal di bloqué benn plage horaire daal di ñëw taxaw nga wax ci sama xarit yëpp macha allah donc bu ma la woowee aussi te aussi benn ba da nga ne ah nañ xool ñu organisé wu daal di ñëw. donc taxawaay bi rafet na te nii rek nga def aussi parce que comme ni nga waxee woon sànq say propos linéaire suñuy mam la woon ak seen mam ñun tamit ñu si góorgóorlu boobu léegi suñu papa yu nekk ak seeni papa ñun tamit ñu xam ni mënuñoo def dara lu dul jouer rek suñu rôle waaw suñu rôle en tant que talibé surtout en tant que talibé parce que ay talibé lañ amaay moo njëgal lañu gëm suñ si seen njëgal lañ gëm suñ mën lañ gëm suñ motaal yéene suñu sëriñ suñu sëriñ donc bu ñu amee tout tànk yéen ngeen ñëw di ko jox si tur ah, ñu sant yàlla di leen ñaan yàlla seen taxawaay yàlla dolli leen jàmm dolli leen sutural lépp li ngeen bëgg ci xadara bi yàlla euh, def ko jaay Muhammad sallallahu alayhi suñu yaay ji aussi toog suñu yaay fay jóg di ko gërëm aussi ko gërëm parce que c'est pas évident déjà nekk en plein confinement mu jiite Italie daal di ñëw juste pour taxawuñu c'est c'est c'est vraiment loo xamante ni rey na suñu suñu bu baax a baax a baax taxawaay bi rafet na taxawaay bi rafet na taxawaay bi rafet na bi di ñëw di nga sonal tout le temps mu nekk hôpital di nga woo surtout bi jeex na mu lay di ñëw tamit bi jeex na mu daal di woo dara daanaka léegi dañuy nelaw parce que hôpital daan ñu nelaw mais léegi daanaka ñun dañuy nelaw ba moom moo yar parce que guddi gi mag aw ñoom ñu defee di nelaw rek macha allah donc loolu mu amuñu fayam amuñu fayam vraiment taxaw taxawaayu kilifa nag vraiment. taxaw taxawal kilifa dugul dara ci détail mm. waaw li mu war a def lay def xam na fi muy yem xam na te lépp moo ko moom moom mooy mooy suñu kilifa nag mm. waaw bu nga xool nappil ñu napp bu nga xool defal ñu waaye ba mu ñëwee tamit xam ni moom mooy loolu mu kii donc ñu ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla def ko waaye sama partenaire aussi moom nekk suñu suñu lépp moom it mm. waaw suñu suñu suñu lépp mooy mbagu awa. mooy njaatige. Gitu. waaw mooy njaatige bi gitu. daanaka moom moo yar awa daanaka moo ko yar. ndeysaan moo ko yar daanaka moo nekk doomu Fontenay ba ni ne malade. ne malade eh, donc rafet na chaque mu ah, di ñëw di ba ah, di di di di di di

gis nga nii daf may woo ni ma Ibrahima bul ay frère lañ bul hésité bis boo soxlaa rek woo ma fu ne fu ko woo damay damay de ah ma ñu pari bi damay toxu rek dëkk naa fi damari lélis damay ñu jógee damay nekkee damari lélis clamaar la ñëw ci gaari otoom daal ma damari lélis damay toxu ba may dë doxu toxu ba may nekkee Noiselle aussi c'est la même chose ba ma ñëwee Versailles day jour bi may euh, yobbu premier cadeau bi moom laa ñëw ñu waxtaan ma jox ko li ma koy jox mu ànd sama xarit daal dem ñu am nga kooku da nekk sa serigne di taxaw taxaway boobu lolu yombul la mm. mm. lolu vraiment yombul yombul da liko liko tax mu fay def rek dafa japp ni euh, serigne la certes mais frère la mm. parce que famille jaxasoo na si si c'est sama xarit papa la mooy sëriñam la waaye ay ay frère lañ am donc momit it mu continuer di taxaw taxaway bobu donc dañ koy sante momit di ko ñaanal yalla di ñaanal yalla soxnam ci aussi Je mm-hmm. chaque waaw incha allah moom mooy yor organisation bi mais. moo yor monsieur yi moo yor monsieur yi. kon suul xel dal na. moo yor monsieur yi maanaam jigéen moo yor bagage. moo yor bagage. xel dal na raasi. dégg nga numéro bi. baax na baax na. kontaan na. donc donc. di kontaan rek di kontaan di kontaan bu baax di ñaan soxna Awa aussi yàlla jàppale ko bu baax. Mm-hmm. Ah, lépp lu mu bëgg ci kër gi aussi yàlla ku barkeel. Mm-hmm. suñu gan gi aussi di Adja Nogaye Diouf yàlla def mu nekk mag. Mm-hmm. ak am am baleeru soxna turandoom bi. suñu yaay Nogaye yal na ko yàlla xare àjjana. yàlla dolli ko jàmm fi mu nekk dolli ko sutura. di kontaan daal di gërëm ñëpp. suñu xol sedd na si njóogu moom it ñoo jàngandoo alxuraan moom it moom it ñoo bokkandoo fi ñu jàng alxuraan sa tafsir moo ñu demoon na sax ba ba maa leen magoon tuuti moom déggoon na sama groupe ma ko doon jàngal moom it donc kontaan bu baax suñu racine aussi tout le temps tout le temps si xew-xewu diine yi moom fa koy fekk même chose changé wul. Ah, foo fekk mi ngi yor téléphone am ah, mi ngi filmé noppi daal di baax ndeysaan ñoom yàlla da leen nag booy xoolee rek xam ni ay nitu leer lañ dañoo baax ne sax Cerno Cerno aussi bu fi nekkoon Cerno Cerno bu fi nekkoon moom it nii lay toogee daal di noppi <laughs> baax ndeysaan baax te fees dell fees dell ndeysaan bari xam-xam ne baax ndeysaan baax lool lool lool donc ñun suñu xel dafa dal suñu xel dafa dal parce que sëñ Mor moo fi toogal Mamalaaji te mu ngi koy matal nag mu ngi koy def mi ngi koy mi ngi koy matal ba mu baax vraiment mi ngi koy matal jotay diine yi mo ci nek jotay yep mo ci nek xam bu ñu aussi wo ko mo wax yu baax na ci dafa dafa donc suñu xel dafa dal ñu ngi ñu koy ñaanal yàlla doli ko jam doli ko sutura ñeneen ñu aussi soxna ana dafa am ngant mo tax mënul ñew deug la soxna Fatma soxna Adja Adja Ngéwén ñoom ñëpp dañu am ngant ak soxna Yacine mo tax téewu mais mel na ni famille bi teew. waaw sëñ sëñ sëñ teewee ñëpp teew rek daanaka. moo représenté ñëpp daanaka yëpp. waaw soxna Amina bu toogee rek. waaw soxna yëpp teew nañu. waaw moom <laughs> donc mi ngi noonu. soxna yi waaw soxna yi yëpp. ñu ngi parce que dañoo nekk en plein confinement. ak contexte bi ñu. waaw dëgg la déplacement yi. waaw ak koor gi yooyu yëpp dañuy baax na donc euh, di kontaan rek di leen ñaanal yàlla yàlla dolli jàmm dolli si waaw. macha allah macha allah. Adja bismillah. <laughs> borom sët bi. waaleykum salaam. rahmatulah di leen di leen masawu. Mhm. ci déplacement bi. Mhm. ndax nag euh, yombul. ah ñamale ko rek dafa métti. Mhm. waxuma laa ñu nekk ci confinement. ak koo yëkkati rek war nga koo jégalu masawu ko. kon nag ñoo ngi leen di jégalu di leen masawu. Euh, di leen itam ziar. di leen ziar bu baax a baax a baax a baax incha allah ndax nag. Euh, dafa yombul kilifa nga déplacé ko ah, wax dëgg yàlla cër bi ngeen am mënoon nañ leen bañ a déplacé yàlla waaye nag euh, dañ ci sant rek ndax am sa kilifa mu déplacé wu ñëw ngir yow ah, yàlla yàlla ah, yàlla a sori mm-hmm. dama koy sant rek dama koy sant di ko gërëm ndax euh, sama doom la. Mm-hmm. li ma wax euh, sama doom yéen ñaa ngi seen borom kër sama doom la. Euh, ndax sama goro ya ma yor ci kër jigéen. Mm-hmm. ñoom samay doom jigéen ñooy samay doom yu góor. Mm-hmm. waaw ak euh, ko gërëm. ak ba wanoon keroog mu ñëwee ci kër gi di ko ñaan si. kàddu yam ma waxoon ba léegi. yàgguma fi sax waaye nag maa koy gis ci moom macha allah. te itam li gën a am solo rek mooy nit moom. lu mu nekk rek na ci euh, sincère lu mm-hmm. ci sincère mooy dëgg ci moom ndax euh, dara du umpe mm-hmm. ah nag nit boo nekkee moom ñaari fan di nga façon nit la mm-hmm. maa ngi koy sant di ko yàlla yeggal ko bi ah, nga xam ne moom la ñuy du tey yal yàlla def ko muy ka gën ci ñu doon tudd ko yàlla may fan bu gudd ñu dund ñun ñëpp ba fekk ñu di ko muut te muy njariñu société bi jariñ société bi jariñ famille am na ko yàlla def Seydina Muhammad xam naa dañoo mën a wula wax sax ci biir mbooloo moo tax rek ñu dugal kàddu yi cant yooyu di leen hmm. sant hmm. di leen ñaanal hmm. ah, di leen ziar ah tey di leen dénkaat ba tey rek di leen dool di dénk ndax ki ñu leen jox dafay xale comme tey xale yi nag euh, ñu lañ koy dénk bu baax rek ah di am yaakaar itam ah, te ñaan itam yàlla bu yaakaar tas ndax euh, euh, jigéen ci boppam rek xam naa sax du ma wax ni amul solo ndax moo am moom moo jur ñëpp am na solo waaye nag dañ leen di comprendre la comme ni nga ni ko sëriñ waxee léegi rek sama xol daf ci benn enseignement la boo xam ne ñoom mën nañ ci rafeeroo ci seen biir kër ba du ñu am benn problème loolu dama cee sant kontaan ci ndax xale yuy sëy il faut que ñu am ñu leen di mm-hmm. il ñu am ñoo xam ne ñoo leen di dokk xel na mm, mm, mm. di leen jàppale tey nee nañu sëyu xale bu demee rek mag ñaa ci mag ñaa ci jàpp ah, waaw amee itam ñu leen di enseigner yenn enseignement yoo xamante ni si dina leen bàyyi loo xel lu bëri seen ginnaaw mm-hmm. ñu xam ni ñu dëkk ci kër dañoo war euh, di communiquer mm-hmm. man tuuti ci dama ko wax Ibrahima dama leen wax ne di leen communiquer ndax euh, communication moo yor sëy ndax bu ku nekk demee xelam rek man ngeena dem ci ay erreur yo xamanteni ci euh du ko japp waaye mm-hmm. ngeen ci communiquer rek yalla man na dogal kenn ku ci nek li nga japp da ngay daal di ndax toujours rek am na beuri yo xam da ngay laisser aller mm-hmm. da ngay laisser aller rek ndax euh, mu koy wax aw mané ko même nit dina am lu ko nakari sa 15 secondes bu ko togué mm, jël ben kaas ndox bu ko nanal affaire bi jàpp mu jàpp su ko defé nga nekkaat ci leneen sax lu mu doon rek boo ko xoolee ci sa bopp. macha allah rek yàlla dafa ci jàppale. ak ah, yàlla daal yàlla nañu yàlla jàppale. ak ah, ma di la di leen dénk yéen ñëpp rek. yow euh, bi di <laughs> yokk di leen dénk sama càmm. ak sama yéen ñëpp rek leen koy dénk ah, euh, waaye nag dama leen di bàyyi seen kër. dangaa ñëw pour soutenir si leen tout rek waaye na mooy delluwaat kon dénk naa leen seen soxna Ngor ah jàppale leen ko euh, xelal leen ko mm-hmm. ah soutenir leen ko dool leen ko xel ndax euh, xale la mm-hmm. tey nag xale tam daf koy ñege des fois sax dina wax loo xam ne day wëlbatikuwaat euh, di ko réccuwaat. naka mm-hmm. erreur c'est l'erreur ko defee rek ñu buñ ko comprendre noonu rek. xam naa Ibrahima moo ko mag waaye ni ko magee bariwul ñoo yem daal ñoom ñaar. su ko ñëpp jàpp la nit ñëpp jàppee rek yàlla mën nañoo jàppale. jàppale ñu. amiin ah, di la dellu di la ziar sëñ bi ndax. Euh, taalibe cheikh taalibe cheikh rek la mën a. ndeysaan ndeysaan. nag euh, ñu ñoo bokk fu ñu roote. comme ñoo bokk fu ñu roote nag. yàlla nañ yàlla dimbali yàlla mm-hmm. mm-hmm. rek. ak ñun ñii di maam mm-hmm. waa kër maam El Hadj ndax sama maam jël doomu maam El Hadj xam nag ñun ñëpp benn lañu. benn famille benn ñëpp benn ndax olof Ndiaye mi ngi wàññi montam yu baax yi ñoo bokk. ñoo waxtu waaw. kon nag yal na yàlla defal ñu ndam. yal na yàlla suturaan bi ba yaakaar di ñu am ba dugg. Mm-hmm. ci euh, famille yi. Mm-hmm. yàlla bu ñu ko déglu. ah yéen itam yaakaar gi ngeen am ba dugg ci ñun. Mm-hmm. yàlla bu leen ko déglu. ndax toujours dama koy wax euh, Ibrahima mhm. ma ne ko tafsir mu ni moo ko jàngal man ne ko man tafsir daf maa neex mhm. dama ko bëgg ndax dafa dafa fasaa dama ko bëgg yàlla <laughs> su waxee mooy daf may dugg daal mhm. te am na gàmm bu ñuy gàmm fee Fass suñu dëkk Fass def salaw moom moo koy gàmm ma ne ko man dama ko sopp te yàlla tax masha ah, yàlla daal yàlla ñu yàlla jàppale yàlla bu ñu réccu yàlla bu ñu réccu ah maa ngi leen di jox nuyoo nag famille bi yëpp ah, nag bismillah bi yëpp comme man yàlla dogale man maa fi nekk ah. ah ak magam yi moom amul ak sax magam yi laay wax euh, ñëpp rek ñi mm-hmm. kontaan mm-hmm. kii moom mooy sama taaw bu jigéen na mag bu góor waaye mooy sama taaw bu ah, jigéen bi mu fi nekkee itam aw Italie la ñëwoon mm-hmm. mu vacances léegi nag euh, bi mu ñëwee ci moom seetsi ko mun abi ñaan papaam ni ko damaa bëggoon nga may awa may moom mu ñëw toog papaam daal di ko waaw mu daal koy inscrire fii mu continuer fekk dafa am BFM Sénégal bi mm-hmm. moo ko continuer njàngam fii ba mu am bac ah ba gis euh, Ibrahima mm-hmm. yëpp man lu wax dama ko man nekkuma fi mm-hmm. yaa fi nekk moom yaay yaayam yaay magam Mm-hmm. yaay léppam mm-hmm. ba awa sax lu ma dama ko naa woon fàtte nga wax am macha allah bu yàlla xeebu ma ko mm-hmm. ndax moom laa jëkk gis ci doom bu jigéen xëy sagal na ma sagal na ma macha allah sagal ma suturaal na ma ah lu mu bëgg lu ma bëgg moom la bëgg lu ma neex moom moom moo ko neex wax dëgg yàlla macha allah bi ñoom Seydou bi ñëw ca kër ga bi indi këram la boobu la fekk boo ko ñëw fi ndax man bu ma bu ma ñëwee Italie bala maa dellu Sénégal il faut ma ñëw fi il faut ma ñëw fi passé fi ak quelques euh, quelques moments ak ñoom mhm. nekk euh, gën leen a kii daal gën leen a wéttali tuuti mhm, mhm, loolu a dellu ndax comme euh, jaboot ji moom fu nekk la sa doom yi di nekk boo demee ci ñii il faut nga dem ceeb ah, <laughs> yi. tëddee jaagaan nañ. des fois itam ñu nekkoon Dubaay noolaadoo dama dem dem di leen fa fekki di fa toog ak quelque temps. dooru ñëwaat loolu yàlla dogal. ah su ko defee rek ñu. xam ne rek seen njaboot a ngi noonu. Mhm. ah Fatou ngi moo fi maga moo fi kilifaam. Mhm. ah su ma yàlla yóbbu ma dellu Sénégal itam moom moo fi nekk. Mhm. su ko defee itam mi ngi noonu daal moo fi kilifaam. incha ah, allah ah yéen itam yéenay seen kilifa. dénk naa leen ñoom am. dénk naa sama njaboot dénk naa sama daal bu leen umpanteeg ñoom. ah lu ngeen am ci xalaat bu rafet di leen ci jàppale. ndax jigéen lañu te jigéen moom toujours dañ ko doole xel. xam naa wax yi mu ngi gudd te. am na solo am na solo njëriñ de waroon na fi sax. yow yow am nga chance de. macha allah macha allah. ah am nga chance. ñu gitu, dëgg hmm. te eh, amul solo daal hmm. nah, maa ngi jégalu ñëpp rek hmm. di leen doole di leen ziar di leen dénkaat sama bopp man itam maa ngi leen dénkaat sama bopp di leen eh, jottali nuyoo kilifa ga itam ma nga ca Italie moom itam xam naa man bu ma jógee fii damay dellu Sénégal incha allah ko yàlla dogalee ak ah, après mu doole ñëwaat eh, Italie yàlla baax ak ah, ngeen doole ñu ñaan daal doole ñu ñaan yàlla yàlla yàq taxawaay bi yàlla yàlla yokk ndam bi ah suñu soxna si itam macha allah waaw maa ngi koy soog a gis waaye ku ko naw laa moom nah ndax nag li nga wax rek ni tukulóor moom loolu rek moom moom mooy affaire mooy borom supp bi nag ba mu ñëwee loolu jubal si te waaye moom la ñu allah yàlla yàlla may ndam yow tamit li nga séntu ci sa néegu sa yàlla ko yàlla defal yàlla arke lan la may la njaboot gu barkeel kon mm. dund ba fekk njariñ yi yëpp ci mm. barke Seydina Muhammad maa ngi del di jéeglu ñëpp nag mm. di ziyaar ñëpp di balu am na yàlla fay leen yiw seen tànk yi ngeen indi yàlla ko yàlla def muy yiw te ñu bokk ko barke Seydina maa ngi jéeglu ñëpp nag salaamaaleykum ah. kàddu yi rafet na de rafet na lool te eh, mag lii rek lañ koy doyee. Mhm. waaw mhm. man dama ko gis. mu dugg toog rek sama xel dal. nekkate boobu li ci biir moo ëpp. dogu ndax du ndax du xumbee xale yi la waaye du saxee mag ñi la. ma nga donc macha allah. Mhm. li mu doon yaakaar yëpp ngi ci biir. parce que nit ku nekk. ab ndax nga rek. soo waxee nag ubbi nañ la. Mm-hmm. Ah. waaye nag yow de suma xel gën na dal. Mm-hmm. sunu yaakaar gën naa dolleeku. Mm-hmm. ndax tamit eh, am na fii de ñiy liggéey nii. ñu fépp xaalis mooy consultant yi. te consultant yi dañ leen di wax rek ne loo leen xam ci lii. Ah. mooy xel rek la ñu. ah ni ñi ëpp xaalis mooy ñiy créer logiciel yi te ñooñu mooy ñooy ñooy ñuy toog di xalaat rek xalaat lii nan lañ koy yombalee ñoo ëpp xaalis ñëpp jeex na tey jii fi ne nii gars yi dañuy wax ne machines yi ñoo dañoo remplacer nit ñi moo tax chômage bi am man leen déedéet la le fukki nit daan gagné benn nit a koy gagné mm-hmm. loolu mooy dëgg ndax benn nit mooy créer benn robot wala benn logiciel sànni ko ñëpp dem léegi la ñëpp war a gañe moom moo koy gagné mm-hmm.

loo ko nëbb nëbb day feeñ mm-hmm. waaw am na dal gu gu gu muy dégagé am na mm-hmm. sérénité waaw am na tamit sagesse boo xamante ni dalay wóor ni jaamu yàlla bu sell moo koy maye mm-hmm. loolu du ay pexe loolu sax ci jaamu yàlla di ko sellal mooy tax sa dënn am leer ba doo waxee wax ji day day dugg dangay wax euh, naan diw dafa am fasaaxa waaye yow it am nga fasaaxa de moom la am nga fasaaxa de macha allah waaw lu leer ngay wax te li ngay wax ça rentre dans le cœur. loolu mooy wane ni ça sort du cœur. et ça c'est très important. li nga wax yëpp dégg nañ ko. xam naa bu baax ne insisté nga ñett yoon ci caat mi. donc nag ca caat mi donc dinañ ko gën a bàyyi xel. bu baax Ibrahima kon. kon kon yëpp yaa ngi ko. waaw macha allah yonent bi daf ñu waxoon ne ñu soxna yi ay verre lañu. verre nag da ngay def attention. ah mu bañ a kii rawatina nag bu dee am am la. Mm. Ah, donc macha euh, allah. ah non waaw kenn waru koo laal sax. kenn waru koo laal comme mu wutal jàng yi. ah kenn waru koo laal nag wax dëgg yàlla. waaw noonu noonu la war a demee nag waaw. kon nag euh, ma ngoog. Mm. xam nga toujours damay wax ne. Euh, mm. yii doo xasee nekk ci moom. yàlla mën na ko dimbali. ben bi moy lan euh moy diine ndax diine mo lay wutal ay limite loy def rek mo mën la taxaw wala avancer diine moy def lool moy wut ay frontière benen bi ci dess moy lan moy jom góor so amé jom dina la teral du fetteerlu mukk fu mu tollu tay taxaw rek dina bayyi xel. Mm-hmm. Mm-hmm. benen bi ci dess moy xol bu rafet. Mm-hmm. parce que lele léeg nga am soxna sax soxna ko. tay am wala nga am jëkkër sax tay am. motax tax ñett yi du xese dajé ci goor yalla mën nako ko dimbali. moo suñu xel dal na bu baax. ndax alhamdullilah ñett yëpp mo ngi fi. ci Cheikh Ibrahim. kon nak dañuy ñaan rek yalla mu gën ko dëgëral. li nak euh, non mak ñi ni lañ daan def moy sank juñu naa leen ko. Euh, kii xam na loolu. police sax soo ko defee. Mm-hmm. wala tribunal. Mm-hmm. da naan la ndax dem nga ci alaaj moom jigéen ba pare. Thiès noonu la ñuy def. Mm-hmm. commissaire rek gendarmerie yëpp soo indee problème ah ñun bi famille a kii sama jëkkër lii sama da naan la ndax njëkki nga ci sëriñ bi. parce que li ci ëpp du ñëwee foofu rek góor bi du waxee ñaari kàddu rek gaa yi wax mu lijjanti ko. su ko du laaj tribunal quoi. ak police ak yooyu. Euh,

jéem a xool euh, kilifa yi. Mhm. di leen jéem mhm. génn góor bu baax daan wax ne. Mhm. dooy roy mag mu baax. soo ko mënta dab yow say morom say morom moom ñoom du la dab ko mënta dab tamit moom. yow say morom moom raw nga leen. gis ngeen wax ci donc doo perdre. li nga ne doo mënta am weer bi tamit laajal biddéew yi. Ah.

su yéexee su ma yéexee mu dem de. ma tukulóor bii xaaral rek ma def fal ma def farat ak fula. waaw moo ngoog yooyu yëpp ay négociation la ay technique la. donc donc na noonu la. dañuy àdduna rafetal. rafetoo. Euh, dara et li nga am nga téye ko. mais li nga am nga ko. mu baax mu bon mooy sa cër. Mm-hmm. mais mooy sa cër. léegi nag après loolu noonu nga defar ko. gis nga gaa yi am na ci euh, benn euh, groupe la ñu ñoom it. waaye wu Céline léegi dama léeg-léeg leen daan defal waxtaan ci koor bi. Mm-hmm. benn waaye dafa dañoo dajawaat ci beneen tudd. Mm-hmm. mu ne ma sëñ bi ana soxna si ñëw la moom euh, kii moo tax ma takk la. mu ne ko man dama waroon toog ay dix ans soog a takk jabar samay programme samay xaw ma tukki samay kii mu ne ma waaye benn jotaay lañ toog mu ne ma boo man sax ndax man maa ngi ci ruq ba doon sama téléphone mm-hmm. ma toog dégg la jigéen doo amee vingt cinq pour cent rek takkal mu ne ma ta boobu man maa ngi doon xaar cent pour cent wala ay quatre vingt quinze mu ne mais mu teg sama téléphone daal ne mais xanaa sëriñ bi dafa juum de nee na ci saa si rek mu mel ni maa dégg di ma tontu ma ne ah li ma wax bizarre na de vingt cinq laa wax de kon des na soixante quinze man leen waaw vingt cinq laa wax man leen vingt cinq yi mooy li mooy li ko papaam defal ak yaayam ak yaram ak yéen

da ngay toog nii mu bëgg a seetaan xaw ma dina ma ne xaw ma lan. yow nga bëgg a seetaan arte. day am. problème am walla match bu am solo am. moom ak théâtre bu am solo am. champion. doo leen deful ndànk da ngeen di rayante ci kër gi. Mm. amoo yar amoo teggin xam nga lan fekk yow du dara sa match bi mu la xañ la. kii tamit mere na parce que kii théâtre am bii. te pourtant télévision ngi fi mm. fi de mm. mais iblis mooy dugg. waaw mais lu tax lu tax lu tax yow ngay despote lu tax nga mën di imposer. waaw mën na la yow lu tax nga ñàkk teggin man sa sa jëkkër laa. gis nga problème am. da fekk du dara. moo tax am loo xamante ni. yéen a koy jokkalante ay session la da ngay bàyyi. Mm-hmm. Euh, am na am tamit ko. Mm-hmm. ay anniversaire gëmoo ko. Mm-hmm. mais bu dee si gëm na ko. gëm ko de. su jotee demal jëndi cadeau jëndi say bagage indi. daf ko bëgg. yéen it am na loo xamante ni soxna si xam gëmu ca mais parce que xamna na ni Tu la intéressé. Mm. du taxawé mu ñëw taxaw mel lu ko gëm. Mm. mais c'est mooy sëy. Mm. ay def ay session je lo ki jël lo y la. ma ko yeneen vingt cinq yi xam nga la expérience c'est la vie que vous apprend ça. ma leen loolu du onreta mm. a yi waaw san bopp man leen waaw kay waaye <laughs> gis nga xoolal dama jóg rek daan dem seet ne ma sëñ bi man foofu sax amoon naa ay presque trente ans moom benn sax di doon ay juróom yooyu quoi mu ne ma danaa dem rek génn dem ci compte ma génne bagage yi yónnee sama may gu jëkk mu ne soxna si kaay nuyu sëñ bi kii kii moo tax ma takk la sinon dix laay takk

dëgg la ay amour ak yëpp ci mais li ci ëpp supporté la. Mhm. parce que jigéen daa bari caprice. Mhm. mais caprice yooyu mooy xorom si dama koy waxaat. Mhm. yaa ngi dégg. loolu mooy bu njëkk bi ndax nopp nga ko. ndax nit doo ko bëggee rek supporté ko. li muy def sax ci lu bon day mujj naaj sa bët. beneen bi ci des mooy lan ndax am na kilifa.

des yoo doo xam fu ñuy jaxasoo ci ba yegg si taxaw. doo ci da ngay jéem doo ci mën tus. léegi nag yow il faut nga am photo dem soo ko deful rek musiba am soo ne non mais dama koy affron ah, ko léeg-léeg repli ci mën a xeex la nee na jàmbaar dawul dafa wuti doole nga daw wuti doole defaraat nice daal di avancé dem parce que kilifteef dafa ama am dafa am solo gars yi bëri na fi ne nii loolu lañuy bëgg sëy seen sëyu euh, kii quoi euh, lu kenn xamul waaw ñoom ñaar sa jabar waaye sa bismillah dem leen di ngeen def seen dund mel lu neex waaye bu yëf yi tàngee doo gis ku la dimbali doo dajee nag waajur yu tàng comme yow su tàngee dañ naan la doxal ses problèmes moo tax sëy c'est pas ñaari personnes c'est une mm. alliance entre des familles mm. c' est des familles mm-hmm. c' est important kii ñoo ngi ko mayee ci kër Cheikh mm-hmm. mais loolu dafa am lu muy doxee mm-hmm. Thierno Madani moo jóg euh, wax takk sëy bi ah loolu rek xanaa doo du demee ba jaxasoo am soo ne o oh, man de surtout Cheikh Oumar moom ma ne xanaa loolu rek doo ko xalaatee rek nga war a toog ci bi ba dee pour sagal Thierno ñaan ñaanu Thierno Madani pour ñaanam bañ a tipp ndax dafa waxoon yàlla ngeen ànd ba aljanna pour loolu rek téye na nit ci sëy mm-hmm. ah yow sa wajuru góor di kilifa nga xamante ni ku ko neex mu yabal ko moo mm-hmm. jugal boppam mm-hmm. sëñ Siise moo jugal boppam keroog ba mu demee sëqu xaalis bi mu jox Cheikh Ramadan yi ci addiya Cerno dafa yaakaar ni ci liggéey bi la koy def mu ne ko mm-hmm. yaa ko moom sa addiyee maam la xaalis baa bari <laughs> dafa yaakaaroon ni daf koy daf koy def ci liggéey yeeg yooyu mm-hmm. xaalis baa bari mm-hmm. mu ne ko déedéet kii addiyee Cheikh Umarul Fuuti la lu la ci neex defal mais nga yaakaar ne xaalis boobu Cerno suñ si daf ko jox Cerno pour addiyee kase mais yow la ci ñaanal loolu du heure boo ko xalaatee lu mbir mi jaxasoo jaxasoo dafa am lu muy loolu sa xol nga avancé dem donc yooyu dafa am solo. mbëggeel ëpp naa caaxaan. soo nit soo ko bëggul doo leen dem. loo kii kii parce que c'est surtout biir couple sax koy xam. jigéen ñi dañoo garaaw de dañoo am septième ak huitième ak dixième sens. six sens sixième ak la ñu doo waxee beneen jigéen laa wax nii su xam nañ ko. billaahi la azim wax ma gars yi ay la ñuy wax ay cuuraay jàmbur. dama ne la. soo génnee téléphone wax ak beneen jigéen wallaahi soxna si xam na ko su ko neexee mu manifester la ko su ko neexee mu ne non loolu la wax ak moom rek man xam naa ne man la non garaaw mën na wax loolu mais xam na ko te soo leen waxee di nga xam ni xam na ko yàlla moo leen may loolu. donc nak yeuf ya ngo <laughs> yalla nañu yàlla boole dimbali yalla nañu yàlla boole jàppale euh, doole xéewal yi doole sutura yi en tout cas sa wax ji rek mo ñu inspiré ndax euh, waxi kilifa la la lat na xel yi do doole wax na suñu yaakar te c'est sûr que du ko way juri jotee tamit dinañ gën a xam ni Ibrahima dëgg la ci àll bi way sànniwul loxo ça c'est très important sidna Ibrahima ba bayam bi ko jur ba mu ñëwee keroog ci alxuraan ñu ko alxuraan waxee mu ñëwee ca buntu kër ga nuyoo salaamaaleykum soxna si ne ko góor gi lan la xëy ko sax góor gi lan la mu ne ko non man dafa ku ñuy Ibrahima moom laa doon seet mu ne ko dem na Ibrahima dem na mu mu mu taxaw rek di xool mu ne ko mais sooy seet nit nekku fi doo dem sa yoon ko mu ne ko ah man moom laa soxla woon. nekku fi. ñàkk teggin bay bëgg a dee. góor gi daal di tourné. ne ko maa ngi dem waaye su ñëwee nga ne ko sa bàyyi ba ne góor gi am na góor gi fi ñëwoon nee na nga du fii buntu kër gi du fii. daal di dem ba Ibrahima euh, euh, euh, Ismaïla ñëwee. Ibrahima ñëwee mu daal di mu daal di mu ne mu ne mu mu ne ko ah gan ñëw na fi mais góor gu góor gu mën a laaj. góor gu góor gu gu dañ ko mba ñëw gu ñaaw wax wax ko daal ay wax moo nga pënd moo nga nangam nangam mu ne ko waaw ko gar la mu ne ko waaw mu ne ko mais am lu wax de mu ne ko lan la mu ne ko nee ma changé buntu kër kon nag jugal ma jàppale la ci ci buntu kër gi mu ne ko déedéet fase la ñeenti yoon mu ne ko kooku sam papa la nee ma yow doo jigéen bi baax dem nee ñu mu toogaat tuuti mu ñëwaat ba mu ñëwaatee mu nuyoo ndaw si seen ko rek ah góor gi yow doxe nga ak naaj de yegg si jàmm foo jóge place ah war ngaa son indi ndox jox ko mm-hmm. ah xéwlu nga mm-hmm. mu mën a ko dee di kii mën a ko xaaral mu ñëw am na lu fi nekkoon jox ko mu lekk toog toog mm-hmm. foo jóge nangam nangam koy seet mu ko ah dafa dem mais xam naa ne léegi mu ñëw bul yàkkamti toogal xaar ko nangam nangam dalal ko wax yu baax ba mu paree mu ne ko maa ngi dem damaa yàkkamti waaye sa jëkkër bi ñëwee wax mm-hmm. ko ne ko am na joon góor bu fi ñëwoon nee na buntu kër gi fii la mm-hmm. waaw boobu ñëwee moo mu ne ko ah, am na benn góor bu baax ku yiw ku sell ku ma fi gis ku fi ñëw waaw doon na la laaj nag mm-hmm. toppatoo naa ko nag ba mu kontaan ñaanal na ma yëpp waaye nag dafa yàkkam ci mu ne ko waxula dara mu ne ko ah kay nee na buntu kër gi fii la mu ne ko maa ngi yow baal jana mu xoolal lu la neex def <laughs> ne ko loo ma def baal naa la ko nee na yow jigéen bi baax na hmm. affaire baa ngoog adduna adduna noonu la waaw kon nag euh, yonent bi nee na adduna yëpp ay xéewal la hmm. waaye xéewal bu ci gën mooy soxna su baax hmm. yonent nee na doo amee soxna su baax sa xaal bi dund baax na kon loo ciy dégg soo amee soxna su safaan tamit sa xaal bi dund yàqante kon nag euh, góorgóorlu bu baax. Mm-hmm. Euh, taxaw bu baax. Mm-hmm. lii jar na lu nekk. Mm-hmm. Euh, ay nit ñu baax rek ñoo leen seq. ay sàmm rek ñoo leen seq soxna wa góorgóorlu. dolli bu baax. Ah, yow am caat nga. mais bon caat tamit. <laughs> caat waaw moo ngokk caat c'est-à-dire caat léeg dañuy wax ne caat day yàqu mais caat aussi day defaru parce que attention bi muy am ñeneen ñi duñ koy am. tey jii li sa yaay mën naa nëbbu ñu nekk lu nekk yow dala koy wax. yow mi tamit accès bi am ci pour y a xam secret yi ñeneen ko am caprice nga en principe as utilisé utiliser euh, euh, statut de tchadam comme il le faut mm-hmm. mais tu es bien protégé hein. moi je le sens très bien tu es bien protégé buggul buggul lu la laal ku te c'est normal c'est normal waaw ah, donc nag alhamdulilah dénkaane na la bu baax waaye tamit dénkaane euh, bala muy neex ñu mu def effort góorgóorlu waaw toog ci ay tànkam waaw parce que xam na ni euh, ça peut se ça peut se faire waaw góorgóorlu leen bu baax keroog tabaar man ay indice rek dañuy waxtaan ci euh, ci couple Mm-hmm. yu koy gën a dëgëral yu ko gën a baaxal mm-hmm. ba ma leen wax ne ne na ngeen di bokk di jaamu yàlla mm-hmm. moom ñi mu jël exemple dama du guddi alxamis jotee ñu toog mu ngi yor ay ñaanam yor ay dogam man it ma yor samay ñaan yor samay dog ñu def suñuy ñaan def suñuy dog ba àggal suñu paree ñu bokk ñaan maag moom soo dem tëdd léeg-léeg sax soxna si foog ko ne quoi ah, sëñ bi reer neex bi <laughs> mais fajal jot na ah, kooku mooy soxna su baax jigéen ju ci jaamu yàlla hmm? kooku kooku kooku tamit xorom la eh? xorom la yooyu <laughs> daf ci am solo am na ci jigéen ñu ñu solo li donc quatre heures lay kii waaye waaye bàyyi ñu neroon tuuti nag ah <laughs> quatre heures ah? Ah, dafa am solo benn waaye li ci euh, mbuur la dëkk ndeysaan mhm. problème yu rëy am ci ci couple bi ba mu jaral ma ma jël oto dem ndekete yoo <laughs> nekk ni problème bi yëpp xam nga lan la nee na dafa bëgg jabar bi wér du quoi. ah oui coow coow la. mu ne mu ne damay def ci ay copains nee yi seen jabar seen jëkkër di wax ak ñoom seen jabar naan uhu uhu mu ko uhu mu lii moo nekkoon coow li de kese je te jure sëy mën a ratas mu ne moom dafa bëgg gars yi du ñëwee di wax ak jabaram mu naan uhu comme ñëpp di yor kurusam di wér di yor ay ñaanam di def ay affaire ma ne ko mais ma ne ko mais soxna si yow del wér ba ba sa jë mais yow ma ne ko wér la penk bi du jeex jëlal sa kurus wutal sa école yu rafet soo waree togg sax bul togg toggal di wér di loolu la bëgg donc <laughs> pour vous dire que di jaamu yàlla dara dàq ko euh, dafa neex te sëñ bi wax na ko keroog

jële ko ci say bàjjen yu baax bu ko jëlee feneen bu lijjanti te ñii ñu ouverte lañu loo leen wax ci ay affaire ak ci yu baax ñu teg ñu teg la ci yoon ne la defee nii waxeel nii lijjanteel nii soo wutee sax lu dëgër soo leen wooyee wax leen ah man daal su waay ji nangam nga na la wax ko nangam jaarale ko nangam day jàll waaw sa bi may soog am sama taaw bi maam Alaaji yaayam dafa ñëw maamam dafa ñëw di ko frotter di ko dàmp dàmp sama ba doon saar ndeysaan mu xool ma rek xam ni maa ngi yërëm sama doom ji ba mu ne ma mu ne ma sëñ Mor man lu mu bon bon am naa set de pour wax ma ne ma fii kii jaar jaarale naa fa ñoo xamante ni ñoo ngi dox seeni soxla loolu ça m'a soulagé mm-hmm. xam naa ni def na ko y a aucun risque mais ça fait peur

waaw mën nga ko bañ a dégg nag mën nga ko bañ a comprendre moom it mën na ma mal exprimer wu sax mën mën na am mm-hmm. waaye xol bi mm-hmm. du dugal doomu mukk ci lu koy lor mm-hmm. waaw su ko defee yooyu bu leen ko bu ko sàggane waaw soxnaa yoon waa ngi nii leer na euh, ñun fii ñoom fi bëgg a yàgg xam nañu sëy yi bi demee nga am chance sa goro nekk fii ñëw sa yaay ñëw toog wax ak yow di la di wax wax yu baax yi ñu léeg-léeg du ñu dégg yeneen ko am te c'est parce que loolu ñooñu loolu lañ gëm. Mhm. mais sa yaay li gëm wax na la ko. Mhm. wax na la ko ñun ñii Ibrahima mii sëriñam la ñu nga yaakaar ne duñ jógee wéet ak moom luñ ko waxaat dara ah kay am na lu ñu wax ak moom fii ci kanamam pour dalal xelam mais am na lu ñu koy waxaat parce que lii dafa fort parce que dénk ko rek moom daf ñu dénkaale ñu nit. Mhm. yow mii daf ñu wax daf ñu la confier. loolu jël nañ ko bu baax responsabilité bi xam nañ ko wa kon nag yow dimbali léeg-léeg soxna yi ba ba kii dem amna ben benn soxna loolu laa ko mané ko ne gor gorul góorgóorlu leen rek parce qu'on vous protège parce que par exemple ñun suñu yaay yi ci këru talibé la ñu nekk lépp lu suñu yaay deg nag bëgguñu suñuy soxna deg ko bëgguñu suñuy xarit ak suñuy soppe sax seen soxna dalal moo tax man ñëpp dañ koy wax

Serigne Mbaye Mbaye Sy mooy si taw bu góor. waaw moo doon woote. ngi ay wax yu baax nee na kontaan baax. macha allah macha allah nee si si euh, mooy mi ngi porte daal fa parole famille bi yëpp. macha allah seen mag yeeg ñëpp. macha allah ñu ngi kontaan di di gërëm. sant yàlla sant yàlla dina baax. Mm-hmm. mooy sama taaw. mooy sa moom dafa jël aw ak ak magam bi bi bi bi jàng. dafa leen jël ni moom mooy seen papa. Ah, ah, la wax euh, dafa jël ñu ndaw ñi rek jël leen moom mooy seen papa. Ah, lu war si ñoom mooy def moo leen di encouragé mooy waxtaan ak ñoom. lépp daal loolu am na solo. ndax dafa teel a xam responsabilité moom. macha allah. moy sa taw yow sama taw waaw. waaw góor te la am responsabilité. seetal li ngeen ñaanal ko waaw inshallah fasal ko rek. inshallah allah fasal ko rek mu ngi leen di nuyu. yow it buñu ñu fàtte ci ñaan. ndax limay wax rek mbir bi fi la. du ci ay sant ak tour ak ak ay solo c'est le cœur. waaw yooyu bu ñu fàtte. parce que tamit jigen ju baax. Hmm. jigen ju sel wa hmm. ñaanam moy gëna gaaw nangu. Hmm. Ah, kon ñu nit buñu ñu fàtte. say doom lañu say. jarbaat lañu. Mm. boo boo jëlee sa course rek. Mm. waaw fàttali ñu ñun ñi fàttali ko mm. ñu ci yàlla may jàmm ak li may wax nii tamit du mooy ñii xam nañ bu baax ñu may doxale c' est pour nous tous man sax dama ci jariñu. am na ñeneen ñu ciy jariñu. waaw loolu pour pour lool la rek. waaw mën nañoo keroog ci kii yëpp. Euh, Thierno Mar mu leen koy junj. mu leen suñu neexoon. sëñ bi du ñëwee def affaire sëriñ. ñëw tudd tuddam toog yor kurusam di kii yooyu. ma ne ko ma ma ne leen débat yi ñuy ubbi ay politique ay coow ak yooyu yëpp. Mhm. c'est pour avoir. Euh, benn atmosphère bu baax. Mhm. waaw mën a waxtaan. Mhm. su ko defee lu mu jaxasoo jaxasoo noonu. dina am ñu ci jariñu. yaa am ñu ci gindeeku keroog am na yu bëri yu ko fi jëntiku. te duñ di ko defoon mu sérieux noonu. loolu du fa am. débat du am waxtaan du am.

day crispé wu. Mm-hmm. Euh, li li waa ji waxoon nee na fekk ay ay ay sëriñ yi waxtaan mm-hmm. ñetti kenn ki ne ko. waaye noo def noo def kii bi xew mi mu ah man daal man daal damaa toog rek mel ni mel ni ku muuma mm-hmm. waaw man daal man daal man daal loolu mooy sama technique kenn mënta wax ba ma wax benn muum nii rek laay def damay fittasu rek <laughs> jeex na. mu ne ñu ko defee nee na ma dégg gars yi naan bi du wax laa moom ca kaw lay waxaat moom du wax moom <laughs> kii de yéen ne ko ah man de dara man de man samay bët laay xulli rek samay bët laay xulli rek waaw rek fu ma toll maa ngi xool gauche xool droite mel ni dafa am ay jinne yu nekk ci biir ak fam ñu ñu rax ak yooyu daal mu ne su ko defee doo may ñaar lool sax léeg-léeg ma fàttale du xool fee fekk gis naa la bu baax <laughs> gis naa li may jox waaw mu ne léeg-léeg nit ñëw war a joxe sax dix mille xool xool ni may xoolee yooyu yokkaat yeneen waaw yokk yokkaat xaalis ki ci des na ko nag man damay wax lu leeru rek ne mu ne li may wax mu ne gis nga sama jotlikat bi bu ko dàq fen ci àdduna mu ne amul mu ne ko ah mu ne ko sama jotlikat bi mu ne mu ne ko man li may wax sax xaw ma ko te te te te du ma téye nii ne ko noonu rek laay wax de nee na mu ne sëñ baa ngi leen di nuyu di leen ziar sëñ baa ngi leen di gërëm li ngeen ko defal

défendre mais toujours ci respect. du du léegi nag du mbiru sëriñ bi xëy nag nga daan ne groupe toog. Mhm. doxal sëriñ ji su paree après ku nekk dem. Mhm. mbir yi ñun loolu lañ xam bokk. Mhm. mais yeneen affaire yi nii yooyu bi dañuy sonal rek. dañuy ah, sonal rek nga toll ci boo xam ne sax. Euh, dara tëjootul. dara tëjootul. Euh, ndax bu da nga ni comme sëriñ laa rek damay waare. même boo dul sax waaye boo toogee rek ni borom xam-xam laa damay waar kenn du tudd dëgg. il faut nga dawal pédagogie boo xamante ni si mm-hmm. di nga da nga di nga euh, ñu ci seen bop lo xam du doon ay waar rek da nga mm-hmm. waaré lay doon waye da nga koy waxtaan ci àdduna mm-hmm. su ko defé nak ñepp man cee jëriñ effectivement c'est important contextualisation ak euh, xam nga moy li ma leen wax ci tafsir bi donc loolu leen wax man len man mu borom xam-xam bi ñokay def jël alxuraan ni baqar ba naas li ko man leen ah, loolu ñom ñokay def mais man duma def loolu aay yi la ñuy jël. Mhm. mais ñu seet li ñuy dund. Mhm. lan la ci aay bi wax. man leen man du ma ko mënta def rek bàyyi. Mhm. parce que tamit am na loo xamante ni ordinateur yi ñoo la ko dàq. traduire. Google traduction rek mën na ko. Muslim Pro am na traduction alxuraan yi. loolu c'est loolu loolu jafewul. mais nag contextualiser ko. moo euh, ngoog la xewoon ay dix mille ans avant le prophète. Ah nga nga mën koo teg mu am tey jii aujourd'hui C'est une lumière pour les mm-hmm. mm-hmm. euh, mm-hmm. ah, ça c'est très important Comme euh, Haj, ça nous après non des questions payantes on est en France hein. <laughs> ah, c'est des questions payantes comme yaa yor comptabilité bi ko yaa yor comptabilité bi RIB yeeg yëpp. waaw koy toppatoo yéen ñaar. xaaral gars yi sànni après nga soog a ñëw ci ci question yi kon nag question yu bari comme c'est

loolu moo des loolu moo loolu sax moo bàyyi sama dëkk ba comme ah <laughs> nii noonu donc euh, ñoo ngi ñoo ngi nuyu tamit euh, ñi fi teew ñëpp mm-hmm. euh, jotaay bi rafet na loolu vraiment mm-hmm. di nuyu tamit Serigne mm-hmm. moom moom jotaay bi duñ ci duñ ci duñ ci dër parce que toujours day waxtaan te tamit da ngay jàng moo tax ma damay bëgg toujours muy wax dama bëgg sax muus sax di di boole tout ça parce que tellement damay damay damay consommer li muy wax avec parce que toujours jëriñ la dafa nga toog nit aussi waxtaan ak moom. Mhm. mu am benn affaire yu grave waxtaan ak moom affaire yu simple mais gën mais yow qu'est-ce qui se passe. Mhm. yow pourtant ñoo maase mais. mais que non c'est juste que damay toog ak. koo xam ni moom daanaka da nga yem ouverture yu bari. ba après problème bu ñëw di nga xam. Mhm. turbee te li sañ mooy di wax toujours rek nit moom lu mënti xew waxal lu baax defal lu baax. te ñun moom dañuy fexe di jëfe tout le temps. dëgg nit duñ ko duñ ko meree duñ ko kii bu nekkee ci benn mauvaise passe sax. waxee lu mu wax wax sax. dañuy bàyyi. Mhm. duñ ko jàpp. ndax ni toujours da ngay jàpp lu lu baax ci moom. Mhm. comme ni ko sëriñ waxee moom mhm. toujours comme mooy suñu professeur. te moo ngi toujours loolu. te toujours loolu nekk lu ñuy wax rek. mais lu muy dund loo quotidien. ndax euh, ça fait def ay mi ngi commencé bëri at. moo commencé côtoyer. 2011 ba léegi. donc te loolu tamit njëriñ la toujours. muy lu ñuy lu ñuy gën di am. Euh, di nuyu tamit euh, suñu sëriñ bi <laughs> donc di. di di xam ni di la wax ni ni ni ni ko sopp sa waajur la mhm. vraiment dañ ko sopp ndax moom képp ko nit yàlla yëpp lañ sopp mhm. waaye ku nekk ak ki la yàlla boole mhm. donc sëñ Cissé aussi ñu ko lool donc moom tamit ñu sopp surtout ci ouverture am ouverture euh, man fi ma ko gën a découvrir xamoon naa ko noonu mais fi ma ko gën a découvrir mooy euh, benn waxtaan bu ñu doon def ci ci potu gàmm gi mais mu ci fa ouverture man loolu mosuma ko xam vraiment nga xamni yow kilifa yi nga am en fait dañ lay pousser vers vers la connaissance vers lu nga bañ nek ci ben lieu bu figé rek daane affaire ni la ni la non diine diine mais da gis da ngay gis ne day dugg ci affaire géopolitique affaire kii ouverture du monde mm-hmm. tu vois donc ñun tamit loolu déjà bo gisee kilifa yi tol non ñu mm-hmm. mënon def li ñu war def mm-hmm. mais gis leen yow comme am ouverture nga na ah man kat lii kat incitation la pour yow nga bañ limiter sa bopp ci xam-xam moo toujours toujours ngay gëstu ay livre de lire parfois ngay waxtaan su ma amee liir daanaka moom néeg ba ay livre kese la. est ma liiree comprendre mu woo mu waxtaan. waaw dafa sëriñ laa kii comme ça. waaw waaw ma jël ma gis ma jël kii. sama daanaka ay livres yu bari la. ngoog mag euh, kii Thierno xam naa ni peut-être mi ngi noonu. Mm-hmm. mais toujours saa yu ma amee problème rek damay woo sëriñ. muy waxtaan ma ne ko man damaa liir nangam. parfois ma li si jawaaxir nangam nañ ko mais lii nii. li ma gën a marqué nag mooy dafa am benn question moo ko laaj pour man mm-hmm. comprendre naa li li li ñu wax ci biir. Mm-hmm. mais je me je me souviens bien ci kóoru daaw sax la. Mm-hmm. mais mu expliqué ni ko man damaa dégg ñu wax lii Cheikh wax li ci jawaaxir. mais daanaka je me rappelle bien plus de deux heures trente la ma expliqué yooyu sew sew yi ci nekk. ruq yeeg affaire yi. dama pare ma ni man ndekete je pensais que j'avais compris alors que man.

Mm-hmm. loo ko wax day jàllale gën a naan kii damay kii. Mm-hmm. fekk fekk na yow ni nga ko déparé moom. moo baax baaxul mm-hmm. fekk moom nag dañuy jàng toujours man dama koy seet toujours parfois ma wax dara ma xam ni bu développé damay man li ma wax ndekete man je suis passé à mais chaque fois danaa li lii ak lii ak lii ak lii am na sew sew bu am nga xam ni loolu tamit boo ko boo ko répété ñeneen rek. danaka day jàll ci te loolu tamit mm. mooy may aussi vraiment incité ci xam-xam mm-hmm. moo tax lépp lu nekk lay kii lu nekk lay diggante lu nekk lay mm-hmm. gëstu lu nekk lay liir <laughs> lu mais loolu lépp aussi mooy li ñuy wax rek ku nekk li nga rek

mënoo toog ak ñoom te su fekkee doo jël si ñoom te su yàggee rek parce que am na lu mu la jural parce que mën ngeen a ànd mën ngeen a nekk ba lépp tamit lu baax lay jur donc loolu tamit moom moom lañ gis tamit jotaay moo tax ay leçon la toujours rek daanaka playlist mariage man boo ko doon def di kii doo ko day wax sax nga ni ah waaye loolu de baax na mais boo ci duggee après ci ngay ci ngay gën a approprié wu les les kii les réalités fekk yow loolu xamul nga ko déjà mais comme nañuy wax la théorie la presque bokkul am na loo xam ne il faut nga dugg ci pour mën a xam

c'est de valeur universelle universelle mm, mm, mm. foo ko mënti fekk mën nga ko jot te islam lépp lu baax rek islam la bokk moom da ko ko da koy wax toujours maa ngi koy bu ko mujjee wax si parti chartre la waxtaan bu ñu ko waxtaan euh, bañ fa demee daw euh, am na benn benn euh, je pense mariage wala wala benn kii daal jotaayu daaw di ko loolu tamit lu am solo la donc ñu nuyu tamit suñu yaay tamit vraiment man moom dafa maa fàttali wax sama maam. surtout ci ñu koy wax rek man ma ko njëkkee gis sama xel sama maam la oh, sama maam me me mère Assou mm-hmm. la dem. boo ko gisee sama xel directement ci moom la dem. gaañoo ngi sol parce que dañoo dañoo xaw a nuroo caractère. Mm-hmm. ci calme bi. simplicité loo wax <laughs> loo wax rek loo loo wax rek mu ah, loolu ñëw amul solo. Mm-hmm. loolu laay fàtt surtout ba keroog muy daaneel. parce que loo wax problème bu kii suñu musaan bëgg a nga daw ci moom. kenn du la kenn du la kenn du la boo bëggee def laan wala boo xiifee mu jël jox la boole ko ay conseil moytul lii moytul lii na def nii na nga def nii sa fan di wax rek toujours yéen moom seen gudd fan mhm. gage de sécurité déjà ñu xam ne yéen a ngi fi rek mhm. sécurité la pour ñun ah, loolu moom c'est c'est moo dañuy gën a gën a guddal seen fan gën a gën a yàgg seen taxawaay vraiment gën mhm. gën leen may wér ak tal ak lépp dana ko yàlla def donc di di ñëwaat ñëwaat tamit ci suñu suñu xaaj xaaj Ibrahima. Mm-hmm. moom jàngal na ma comme ni ko waxee sànq ñu duggee rek maa ngi koy wax Thierno Lassy. Mm-hmm. ma ne ko moom mii bi ma bi ma jaaree ci oustaz Tafsir. Mm-hmm. bien que yàggu ma fa. Euh, na ma ndax ñoo bëggoon groupe mais comme moo féete woon kaw. après bon bien que moo ko jógee tamit que demoon naa ba adapté moom parce que moom daanaka daf maa ci moom laa gënoon tàq. doon naa nekk ci wetam toujours lu ma jàngal ci léegi na gaaw a dugg. ak ni nga ko day facilité mais après mm. bu nga déplacer tamit doo ko def loolu suivre rek mm. Mm. donc mi nga moom tamit muy nit ku simple ni lañ ko xamee simplicité ak dimbali nit toujours ndax boo nekkee xale ci def yenn affaires yi foofu kii lay dimbali ci yenn yi da nga koy mën a teel a capté comme que gën a war am affinité te loolu tamit facilité la ci après te noonu lañ ko xamee te boo ko gisee aussi li ñu njëkk gis mooy reetaan bi. waaw ah, <laughs> yow reetaan bi ñun jàng la. ah kii xam nga ni ah, kii su doon dóore aussi waaw. ñoom dañuy jàng kàllaama seen tool yi dañuy jàng xeex. kii jàmm rek ci aussi. Ah. <laughs> ಅಂತ ಇನ್ನೇನು Kanya yalla yalla gëna gëna yàgg taxawaayam ma yàlla gën a guddal fanam bàyyi ko suñu kanam bu baax vraiment mook soxna si aussi yàlla gën a gën a barkeel seen sëy njaboot gi njaboot yàlla def aussi ñu teew fi ay jotaay yu bëri bëri dund ay njaboot yu bëri lépp nekk ci xéewal lépp nekk ci ci sutur ak ak ak ak barke jotaay wax ju parce que tellement waxtaan bi neex na neex boo xam ne boo ku ci nekk da ciy jël. Mm-hmm. ku ci nekk da ciy jël. Mm-hmm. man j'étais très concentré ci wax parce que. ku ci nekk da ngay jël. mais wax leen wax a concentré <laughs> ma ne ko ñu man tamit man tamit sama soxla tamit caat la. Euh, ah li seen di wax man tamit caat la mooy caatu caatu suñu xarit si donc euh, c'est la même chose donc euh, <laughs> ñu ngi newoon nag. et puis tu es nouvellement marié waaw ah, waaw c'est c'est mais lépp aussi voilà ki ma ki ma yàlla dajale aussi. presque témoignage c'est la même chose. Euh, dañ ma ni ku jàpp ñàmburam parce que. Mm. li ñu ma wax li ñu ma ñoom ñëpp la. Mm, donc c'est le même même wax ji la. koo jot tamit seen famille même wax ji lay wax. Mm. am gaa soxna bu daal bu téye boppam bu am bu bëgg jaamu yàlla ak wéyjur bu baax. ak wéyjur bu baax. waaw surtout loolu ko waxal. Ah, man de doogu ma la sax. waaye jour bu ma moom laa doon gën a xool hmm. parce que li ma gëm mooy moom ni ma mel la doomam di mel hmm. li ma gëm mooy moom état d'esprit bi ma am moom la doom état d'esprit boobu lay am hmm. donc euh, euh, juste pour réconforter li nga wax rek yaay ji baax daal moom solo yaay ji bëri moom solo te wax ji mu wax dafa am solo sànq pour dénkaane la dénk dénk dénk dénk waaw te vraiment ñun tamit ci ci siège bobu rek lañ nekk di dox mhm. di xam nañ ni nit benn matul kenn matul mhm. ñun ñii matuñu góor lañ ay matuñu jigéen nit matul mhm. euh, kooku nag àndandoo la nekk yi ñaar jàppalante li seen cheikh wax ni boo nekkee nit ñaari at ñetti at njariñu sëy mooy ngeen toog daal ni ah yow di gërëm naa parce que sama jikko changé nga ko mu ni lal ba wis la ci mais li ci am solo li bénéfice dëgg sëy mooy ngeen i matalindi ay jikko mhm. mooy sëy donc ñun yaakaar nañ ko bu baax si soxna Awa ah, guddi ajuma nii lañ koy defee day doog daal di dajale man nag samay doom ñi daal ñi kii di kii après ñi ñaan daal di euh, di di di di mhm. euh, nag yombul comme ni ñuy waxee Europe moom yombul waaw parce que këru ñaar nit la amul yaay amul mais taxaw rek nekk ay responsable xam ni li mag ñi nekkee woon instant bi ñëw na ci ñun suñu kay jóg na xam ni mënuñoo ñàkk bañ a taxaw boo ñu taxaw nekk ay ay Mame Malick Diouf nekk ay Mame Aladji Ndiéguène euh, taxaw rek nekk euh, di dox li ñu war def def li ñu war a def ba def si biir léegi nga li booy bi commencé wax ni ma papa <laughs> donc <laughs> donc daanaka daanaka daanaka daal taxaw rek moo fi moo fi moo fi moo fi moom lañu war a def donc di bàyyi nga parce que waxtaan bi <laughs> non baax na baax na euh, alhamdulilah ah, ah, baax na baax na alhamdulilah rek ah, na ci na soxna mais mais mais Racine toi aussi. non na na alhamdulilah. ah ñu koy baax na alhamdulilah. Ah, waaw mi ngi noonu mooy li may wax rek. Ah, li nga wax tamit lu am solo la. ndax euh, jigéen tamit yaay jigéen ak. dëgg la wutaat mooy ñëw. Mm. su fekkee sax am na nu mel au début la jeunesse la rek. mais après lu muy gën dem après sagesse mooy ñëw. bu sagesse duggee rek. Mm. donc euh, mi ngi après ji jikko yaay daal mooy wàcc ci moom. loolu moom c'est c'est automatique. Mm. te loolu tamit. parfois dañuy wax rek ne expérience aussi yow dundal sa ak yow seetlu mhm. da koy gis mhm. nga xam parfois yi ko xam day virulent jékki di jëm mag nga gis ni kii mhm. nam doon réagir léegi dafa am différence nga xam ni kii ci ko yàlla yi mooy ñëw bay daal mooy ñëw daal euh, da ngay takk yaay la euh, mais après bu amee encadrement rek ak li say wax toujours kilifa rek. Mhm. kilifa rek mooy lépp. Mhm. Mm. parce que jeune moom euh, fugg la ak euh, ni ko incompréhension wala yooyu. Mhm. Mm. parce que loolu tamit c'est normal. ndax yow nga ñeer la yow ñi nga bokkal frère et sœur la ñi nga bokkal frère. bokk yaay bokk papa parfois ngeen xeex seen kër seen parfois ngeen meroo. ngeen xuloo. parfois ngeen sant wax ay affaire. tu vois koo xam ne nag. te loolu koo xam ne nag feneen la jóge mhm. ñu yar ko kagi na yar bokkul mhm. bokkul réalité yi bokkul mhm. na mu évolué bokkul ba dem ba am lu ancré ci moom am ciment bi dem ba dëgër am lu mu tabax boo wow koŋ kooku ñëw ñëw nga ànd ak moom yow ñu yar la ci beneen yar ñu ci beneen yar ngeen a ànd ngeen ku nekk évolué kii di xool nu muy kii kii mooy li may wax rek toujours affaire ba xool nu ñuy arrondir angle yi ba bu gis forme bi rek gis forme bi rafet na Mm-hmm. macha allah yaakaar naa loolu la te mariage yi mooy mooy marié les couleurs sax mooy harmonie. ñu mm-hmm. nga soxna si li mu sol ak kii le le le le blanc le kii mais yëpp dañ ko marié ba mu nekk couleur bu rafet. Mm-hmm. donc loolu tamit mooy harmonie bi ngay war a créer. ak euh, surtout aussi sa diggante soxna aussi. communiquer voilà am kilifa yu baax. l' essentiel ngeen assurer ko. seen dig ngeen waxtaan lu bari parce que kilifa aussi. lu sérieux moo ko moo ko yëkkati. lu sérieux aussi nga koy wax. Mhm. nekkul tuut càpp rek nga woo kilifa gi nangam nangam parce que kilifa aussi da nga a des a des choses à faire te boo nga mhm. mii kat lii ngay dugg nii nga ko. Mhm. même boo même boo mënul lépp sax yaa ngi ñaan dimbali la. dool dool la a taxawee nga taxawee. nga yaakaar man si loolu laa jàpp. Ah, loolu laa jàpp vraiment. te noonu tamit laay laay jéem a doxee te loolu lépp aussi voilà maa ngi koy jëlee tamit ñaangali sëriñ. vraiment ndax man moom mooy man moom laa xam comme référence ndax moom laa jël comme référence tellement. enfin je répète tout le temps tout le temps parce que li may jël lépp ci moom laa ko jëlee. wallaahi li may jël lépp ci moom laa ko jëlee. li may jël lépp ci moom laa ko jëlee. voilà même su may seetaan dafay waxtaan damay seetaan sax mais dama naan lii man est-ce que man ko. Mhm. parce que tellement ni ma koy appréhender léegi dafa différent plus de ay huit vidéos ay mille vidéos. koy mhm. xool bi seetaan di déglu di déglu. Mhm. di dara nga jéggi ci loo xam ne yow. da nga naan nee li man j'avais pensé damaa foogoon comprendre naa ko nekk dem dégg ma ci dara. Mm. te pourtant da nga naan non j'ai compris fekk na yow. Mm. non non mm. looy gën tamit day wane signe su fekkee aussi même chose bi nga. nga amoon tamit ku ne di màgg que des na looy gën di kii rek. ñu ngoog ñun daal dañ koy ñaanal yàlla. Ah. gën a yàlla taxawaayam. yàlla gën a guddal fa ñun dañ koy ñaanal toujours. vraiment ndax amuñu fayam daal. amuñu fayam. tam xam luwul kenn. seetaanul kenn. lu mu xam ci lu baax dina ko wax. Mhm. te toujours lu mu wax boo ko mhm. résultat euh, lu baax da ci am. Mhm. vraiment mosuma wax dara ko. ci résultat. jamais moo lu xewit moom lay sollicité. parce que moom boole. <laughs> te ma sant ci yàlla bu baax. ndax yàlla na ma ku ku ku baax. vraiment ku baax ku tabe surtout ku tabe. ku tabe ku vraiment. aussi te lu bari aussi da la ouverture. tu vois da ngay ouverture daal ci yu bari. donc récemment rek am na samay mbokku samay mbokku Mbour Ndessa ñu gis ndax daa am benn groupe telegram ma ma créé. Mhm. dañuy def euh, ay ay ay ay fichier PDF yu ma yooyu yëpp dama koy def. Mhm. mais gars yi mooy ne message. Mhm. mu gis mu gis ñuy waxtaan waxtaan man ma ne ko man de mënoo foo dëkk ma ne ko maa ngi dëkk Maam Alaaji. mu ne fan ma ne ko waa mënuma njëgin na mun ma yéen de am nga am am ma xaw ma kuy sa sëriñ waaye yow am nga ouverture. mu ne parce que sa groupe dama cee gis ay xasaay Sëñ Tuuba yëpp mu ngi ci biir. xasaay Cheikh Ibrahim mi ngi ci biir maam Khalifa gis ci Cheikh eh, eh, eh, Ibn Sirin mi ngi ci biir imam Shahrani mi ngi ci biir mm-hmm, mm-hmm. yeneen képp ku ma xam imam Cheikh Salahuddin ay PDF mi ngi ci biir ay ñeneen ñeneen mm-hmm. ñeneen ñu ngi ci biir mu ni parce que lii comme ouverture rek moo koy bu ma nekk da jël la nga soxla rek nga puiser ci l'essentiel na am njëriñ sa dund rek am njëriñ tamit ci ñi la lay côtoyer ak ñeneen ñi nga xam koo ñu mën dimbali nga dimbali ko te ah, mi ngi noonu kon peut-être ñu ma kiiwee la mhm. mais ñu waxtaan bu baax daanaka fa lañ fasante coloré ba nii mhm. mais loolu tamit lépp tamit lu métti lu que su mekkoon dama damaa dajeeg moom mu orienté que li ngoog mhm. mais alhamdulilah daal xam naa daal waaw a a guddal fanam a kawe joxam ci barke am jotaay yu bare bare bare ngoog lépp incha allah wax ni bu ko toppee xam naa ne du ma jeexal. waaye nag naam bàyyi Thierno Thierno Racine rek mu joxe kàddu gi. incha allah bisimilah Thierno. mënuloo ci wax de. waaw man woo ciy wax. alhamdulilah ñu ngi kontaan rek. waxal fulaar tuuti waaw. loolu baax na. conseil yi yëpp. min calmini min juurima min juurima waggalle ɓe fof momin tawi ɗo ɓe momin garɓe ɓe e alhamdulillah min juurima yimmiraɗo ko haali ko kadi waɗi fayida no feewi min belti alhamdulillah machallah min janggi hen kadi no feewi hono noon haaju jogo wirini tan min jaggirima ko hono nenamin ni te mo naka ma wax say wax macha allah ñu ngi ziar bu baax ñu ngi wér kadi sëñ Mor eh, waa Galbe foofu alhamdulilah conseil yaa ji bari kaalaam doon di a xam ñu njàng yéen fépp macha allah njugukat ko haali ko waɗi résumé ko waɗi résumé no feewi macha allah waɗirne conseil ji fof hakkunde gorko e debbo no gondirta no goto fof jaggirta goɗɗo hono mum ni ndaara défaut ji mum e défaut ji makko fof ɗe waɗa feere dañi harmonie hakkunde couple min gona min ganda en ko heewi ɗon min salifate ko hay joni kono ɗon min janggen ko fewi janggen ko fewi machallah o waɗi gosi mo no fewi machallah al bettimo no fewi conseil aji ɗi mo seymo ardiɗi e yummiraɗo e débat jaltuɗo ɗo foof alhamdulillah min janggen no fewi min jalto no fewi kadi e ɗum ɗowno kadi haaj ibrahima ɗum ɗo yiidemo e denta e ɗin kawra hen machallah kadi efficacité kankone ala ala probléme deƴƴi tan ne waɗa ko foti wadde ko e jalto hen no fewi kadi Me hettinano mo no me inde le mais a jimoɓe tan que e no el no en a no e yo allah wurno barkine no y barke e barke mawɓe el ɗo no foof a ir wa sallam cheikh en yimɓe mawɓe tedduɓe innaɓe ɗo fof yo allah waɗ hen barke yo allah mawni yo allah wurno e fowma kadi e lawol men ɓen joɗinoɓe inchallah yo allah mawni barke en jono mani jono sohna joɗi jono kadi alko jogo e min tawi ɗoɓe foof yo allah waɗ hen barke mi jiyan nippo dan alhamdulillah waaw ɓeɗo ɓeɗo ko wax waaw sohna si quand même c'est la madame jegani ici quand même

ko moƴƴere tan min jeeyi makko moƴƴere tan min jeeyi fayi makko min yeehi thies laabi ɗiɗi mhm. mi yeehi ziara ma alaji ndiken deux fois 2017 sin haj mi serin tan sin sisi jegen min kawi ɗo deux fois min kawri min kaldi min jewtidi kadi machallah à chaque fois tan somi ndema <laughs> tan après mbaɗamo suivre no feewi machallah mhm.

ceerno maɗan waɗi ɗum firndele apparemment e mariage joni ko famille goto ɗum ɓooyi gile gile cheikh oumar e mamedou wala mam atta en mamedou jegen ɓooyi guila après c' est normal par ce que cheikh oumar donc yaaduɓe makko ɓe foof mhm. après famille ji ɗi kadi kamɓe jaarde c'est normal mhm. cheikh oumar kala jaaduɓe makko haare kala mo waɗino jote mhm. kala mo kala mo jotodiri mbadde hunde

dottingal ngal sahaba e bappe sallallahu alayhi wa sallam barke gindi cheikh oumar e seydna ahmad sallallahu alayhi wa sallam yallah barken yallah fewne ɗum dowru downo bandiraɓe foof ante machallah min mbiyatimo no fewi min janggi hen ko heewi c' normal galle mo ɗum ganda ganduɗa rencontre mo ganduɗa famille cheikh oumar famille magaji jeguen foof famille a tiwama foof so kawri c' est normal yaltina yaltina gandal mo yimɓe keeɓi hen alhamdulillah ɗum firti tan mawɓe gondirno mawɓe gondirno ni ko noon kadi noon taniraɓe gondir من قال انه في من اللي قال اللي قال حاول من هنا من جت قال انه في nawaɗi sababu machallah min beltima hen no feewi no mbiyeɗani tan ko allah en fait yimɓe jokki yimɓe nanɗo france kono won ko gandanɗa ko en jejjitani ɗum kadi a haali ɗo en cheikh ma foutirtal min allah koko mohammed o seydou jeguen ni maire aydo mo ko en fait moo ko ñëw moo mu jox ko sama numéro mu ni ko xam nga ci surtout Cheikh Marti. waaw léegi mu ne ko léegi damaa bëgg xale bi ngeen nga waxtaan moom ndax famille bu mag la jógee. Mm. man tamit xaw ma woon një njëgeen ma su ma dégg. Mm. famille mm. sax làkk wolof rek moo tax ngeen baal si sama wolof yi. léegi nag sama yaay moom tamit bi ñu ko waxee famille njëgeen mu laaj sama sama mam sama mam laaj ko. Thierno Madani Tall. ñu ci ñaari famille benn lañu. waaw la ko wax. si ñu marié ba pare am na sama benn tante dëkk fii Champigny. jëkkëram tamit daa xam macha allah famille bi. bi ñu demee ba foofu mu ni leen ñaari réerante woo seen ñaari en fait seen seen ancêtre nu ñu meloon nii nii rek la mënoon.

j'ai pas l'habitude de voir ça en fait. Bima demee Thiès aussi damay toog si seen si seen macha allah xale yi fii la ñuy toog ne. ah ci kaw ah oui oui waaw. Ah j'ai pas l'habitude de discours ni ñun moom ay tukkuleur lañu. day <laughs> ñëw ku que des ñaan après pas ça mais dama ne Seydou en fait man discours yi ça me touche en fait. on n'a pas l'habitude de voir ça. foo mhm. toog yëpp nit ñi ngi sant di gërëm ñaa ngi sant et mhm. ça ça montre en fait bi atashabifinaka en fait yalana Je ki sais ko marhamna minka ya vu ça, franchement content Ibrahima aussi nit ku baax la nit ku baax la voir. moom boo ko waxee le Ibrahima Moi, Ibrahima le frère il est ndeysaan si lu mu su mu su wootee mu ni sëñ bi man ko est ce que yow mi yaay sëriñ Seydou sax mu ne ma déedéet moom mi mooy sëñ keroog wax na ma lu am solo mu ni Amina bëgg naa nga teew comme ça ma xoolee la mère Aïda après ma xoolee Seydou macha allah non ay wax ay wax loolu for na de ah la la la la la non loolu laa ko wax tey dama waroon xëy de dama waroon xëy mais dama ne sama chef mu ne ko ii dama am benn rendez-vous dig ma baal rek naa def télétravail ndax Ibrahim va ça va vraiment toucher mon ah aussi mm, mm, mm. quand ils se sont mariés dañoo dañoo nekkoon ci déménagement ça mais bon on n'a pas pu venir mais après Daniel il faut gagner il y ci la il ci kër à chaque fois vous dit aussi vous avez et tout Amina la suñu la et puis c'est c'est mon moment man aw ma kii su ma duggee si yow dugg naa si yow su ma kiiwul aussi da nga koy gis mm-hmm. noonu laa mel mm-hmm. yàlla daa def man comme c'est rouge c'est rouge comme c'est blanc c'est blanc noonu laa mel mm-hmm. donc su ma bëggee nit ki rek bëgg naa loolu la yow tamit ñam ngi sant di la gërëm yàlla daal def tey la ñu gisante mais macha allah jàng naa lu bëri si yow waxtaan ji neex na ni ko indilee aussi baax na macha allah ñëw.

bi kay moo war a dégg pulaar nag. wax dëgg yàlla. maa ngi dégg mu naan mu lay jéem a dimbali ma ne waaye yow kii mu war a nappe. macha allah Racé bismillah. tënk ci wolof li nga wax na c'est important ngi sant yàlla bu baax aussi di sant yàlla di sant ñu fi fekk yëpp. ak tamit ñu ñu àndal yëpp. ak Ndiobo Sine Mor. di ziar bu baax di الجنسية من إزار الله يجعلنا دي بسو تركي سخنا فارنا فارنا دي كندا ونمو هو حسايو ونمو كان قوم يالا دوغال نتيلم دي من إزار الله وسي دي دي نيو تامي تي كليفا يي موي سين منيرو ak سين سيسي مون دي دي سين بو باخ ما شاء الله داي نان دو فوا تي كير سخنا فارنا waxtaan nañ tamit bu baax la macha allah di ziar bu baax di ziar di ziar mbokk yi tamit di ziar Hadj Ibrahima soxna dégg bu baax tànn dama dama waxee tur bi dama xamoon kan la waaye bu ma gisee na ko yàlla ñu daje si événement dama may si déjà bu baax di ko di aussi moom soxna si leen ndokkeel ci ci xale bi ñaan ko yàlla may gudd fan yàlla barkeel yàlla barkeel di jaay tamit soxna nekk ak suñu yaay bu allah moom it bi am ci jàng nañ si lu bëri hmm. waxtaan bi fi bi fi ñëpp wax yëpp macha allah jàng nañ lu bëri alhamdulilah man nii rek la mënoon demee tamit pour surtout maam Cheikh Omar ak tamit te normal mu génne tamit lu di wax tamit ne ñëpp ay sàng lañ bu baax macha allah sëñ moo en 2014 mais c'est grâce à moom xam bi ma ko xam ubbeekoon ay tout xam soxna yàlla si moom la ko jaarale. am mhm. na si jotee xew si relation yëpp. Mhm. yàlla si moom la ko jaarale ñu ngi koy gërëm bu baax aussi. Mhm. ñoom saa yu jóg tamit. moom moo tax ma xam ne dem demoon naa Thiès deux fois et tout. ak ñi ma fa xam yëpp waa Sénégal njaboot bi yëpp. macha allah ba léegi ñëpp benn famille lañ. ñëpp benn famille lañ ñëpp benn objectif lañ dugg parce que tamit ñu baax ñi tamit ñoo ànd. montre yu baax yi tamit ni ko suñu yaay joxee sànq montre yu baax yëpp ñoo bokk heure. tamit ñu ngi si. ñu ngi koy gërëm ci loolu bu baax di gërëm tamit mbokk yëpp alhamdulilah kontaan nañ bu baax ci waxtaan bi am nañ ci jàng nañ ci lu bëri sëñ xaaj njóob résumé na bu baax aussi alhamdulilah donc moom mooy boo bari moo nekk moo moo gën a prédisposition waxtaan mën na ñuy jàng rek alhamdulilah jàng ci bu baax di ziar bu baax aussi boo déggee tamit waa njaboot yi tamit waa famille Cheikh Omar ñëpp ñu ngi ziar bu baax aussi

am na nit ki bul laaj moom ku mu doon xoolal rek ñu koy fréquent mooy li ma wax ci sëriñ mm-hmm. sëriñ jaru peese mm-hmm. xoolal rek ay taalibe mm-hmm. euh, waaye alhamdulilah te nit yàgg naa baax fekk ñamuy fréquenté la waaye nit yàgg naa baax mujj bon ñamuy fréquenté la léeg-léeg nit daan foofu euh, di wax naan man damay def lii damay def laa damaa bëgg ñaan damaa bëgg xam nga ñoom si sëriñ ñu am nañu ay saafara yu ñuy bind yoo xamante ni

Mm-hmm. Cheikh Omar Fouti mm-hmm. radiyallahu anhu soo mm-hmm. duggee rimaax premier porte bi premier chapitre je veux euh, bi sax man moo tax ma ne porte <laughs> premier chapitre bi soo ko ubbee am na lu yu garaaw yu muy jàngale foofu ci cadre euh, ci cadre li ñuy wax atmosphère léeg-léeg mbir mi du du du du wax ji mais atmosphère bi la environnement xam nga fi mu nii tey jii Euh, am na jeune mais dañuy commencé dagg mhm. atmosphère mhm. pourtant man mën naa ko pas ah, keneen mën ko ne mhm. wala ñuy wax ñàkk fayda. wala ñuy sais wala ñu kenn xamul. wala ñuy werante. atmosphère bi may loolu. xam nga jàkka. la atmosphère rek environnement rek la. mais mais aussi je ne sais pas def jàkka. xam nga lii ñu wax fii. rusuñu ko wax fenn c'est en direct ñu koy suivre lool moy wane ni aduna bi yëpp mën nañu ko seetaan li ñuy wax lu lu lu la parce que environnement la et ça c'est très important ñu bëri léeg-léeg loolu moo leen di sànq euh, Cheikh Omar nee na da ngay gis da ngay gis koo xamante ni nit yàlla la par exemple nee na mu dugg di fréquenter genre hammam hammam amul ah, am na fii

mu ne beneen yoon soo ñëwaatee nee na sa iman day wàññeeku sa kersa gën a rocceeku tuuti nga daan ne non sama mbubb rek laay summi beneen noonu ngay def ba mujj di futteeku comme ñëpp nit ñu futteekoo te yow pourtant bi ngay ñëw sa iman dafa feesoon dell mu ne cadre bi nga dugg nag moom mu jëroot ci sa ngëm ba mu ñu nekk zéro dafa am solo leneen wax na ko nee soo demee toog ak jaaykatu parfum su la moo ngi mel nii euh, tey jii nga dem yendu ji euh, feneen kii na tey la jaaykaayu bi nekk fi ñu ko nii Belle Épine wala Sephora boutique Sephora laay bëgg a wax mais foofu doo fa duggee lu mat une heure de temps soo génnee mais da xeeñ parfum force même doo jëndul wan nga sax ñëw di def ay essayage doo defee quarante cinq essayage kenn saa waay da nga mujj sax sax parfois yaay gën a sax xeeñ parfois ki ki ki jënd à cent cinquante euros ou deux cent euros euh, loolu parce que foofu parfois fa nekk mais am na zone yoo xamante ni ji loo doo fa demee mm-hmm. fii defaree jën ca Rungis wala ca xaw a fan mm-hmm. mais sëñ bi da ngay xeeñ mm-hmm. soo demee fi ñuy tëggee mais da ngay da ngay xeeñ mbaam tëgg cadre dafa am solo

ñoo ñuy wéttali ñoo ñuy jàppale euh, fu heure bu nekk laa leen di woo sànq bi bi ma keroog bi ma leen waxee yëf yi dan bismillah bi ñuy dem charte ba kii démb benn tubaab ko doon ñu ko doon mayewaale ci guddi ga minuit laa leen woo laa ñu ñu jóg dem mm-hmm. fii nii damay wax rek ñu ne ma déedéet c'est pas la peine

njóogu mi sax daf ñu jege loolu waaye kii euh, nit ku baax la ku baax man yu bëri dama koy neub parce que amna am na du ko déggee dootul am jàmm fi mu ne nii tey jii <laughs> am na ñu bëri ñoo ngi seen stabilité tay jii ci loxoom lañ jaar këram soo ko demee la fa jaar ci ay famille mhm. li fa jaar ci ay kër mhm. Ken xawul lu ton te do ñewé ci kër ga. da ngay japp né mom mi lañ hébergé. moy joxé néeg yi dëkk ci salle bi. su togg jotee moy togg jox nit ma macha allah dimbali nañu bare bari li mu ci euh, hébergement. ak kay yooyu ngeen doon. attestation la loolu lim man man léegi war ko racine. gars sa tour yi dinañ ko xamé dé <laughs> ku yëngu rek nga défal ko

am ca moom mm-hmm. maa ko doon jël wala mu yónnee ko aas wala Fatma mm-hmm. ñoo ko war a topp waaye kooku bi mu jógee xam ne ni ñun ñëpp benn lañu dafa jógee fa mu jógee jubali ca moom mm-hmm. ba dem ba toog ba installé wu soog maa woo ne ma moom moom bi ne ma waa yaa ngi fii te kooku ñoo ko war a fàtte wallaahi su doon ñi bi ñooy ànd

defal ko lépp li mu war a am Thierno Madani ci ñi ko gën jege ci Dakar ci la bokk ci bras droit Thierno Madani yi la nijaayam moo ko yóbbu mu may ko wér moo ko defal lépp li mu am ci tariqa nag euh, ñoom ñi ñoo baax waaw njóobu nag moom it mooy li ma leen wax rek moom dafa jege waaw ñaan rek nit du nekkee ci yoon dañ koy ñaanal yàlla ndax tamit ku nekk li nga am ngay joxe mm-hmm. li nga am

tay les lepp lay def ci lu bari allah euh, donc vecteur c'est un vecteur ci mom yalla jaarale na ci message bi mu dem ba mhm. lay jaar Congo ba Angola ah, ba Niger ah waaw euh, Amérique mhm. Londres réew yi ñuy dégg yëpp gaa yaa nga foofu ñi tuub ñi jël tarixa bi te yàlla mën ko jaarale ci moom ndax moom moo yor site euh, internet bi moo yor page WhatsApp bi moo yor moom la ñuy indi contact moom la waxal mu wax ak ñoom mmh. teg leen ci yoon mmh. ba ñu mokk pour mmh. dugg ci lislaam bi mu wax ma man duma wax loolu jox leen baab seen wala ñu bëgg jël tarixa bi ba jox leen tranquille donc loolu ay ay dizaine la mhm. waaw donc loolu nag man euh, ñoo ko bokk def waaye man defalu ma ko mhm. islam la ko defal waaw loolu waaw si si si liggéey bu metti la mhm. du métier moom affaire mat appliqué yooyu la doon def waaye tey jii li mu xam ci informatique euh, tabarkaal yàlla dimbali na ko ubbi na ko ci bu baax te loolu li ko waral rek mooy bëgg jàppale islam bi waaw donc nag euh, ñu ñaanal ko yàlla. Mhm. yàlla dimbali ko. yàlla jàppale ko boobu bu baax. loolu mhm. ko xéewal loolu ko ko teranga mhm. parce que liggéey bi tamit noonu li ma wax ñëpp mënuñoo nekk di wérd ak ñoo xamante ni ñooy yor informatique bi ñi ci des wuti nag jotee ñu jënd ko. am na ñoo xamante ni bale lañu mën ñu dem bale ji. am na ñoo xamante ni dañuy tàccu dañ dem tàccu ji. ku nekk la nga am ñoom te xeex lañ mën du xeex jotee ñu génn xeex. léeg-léeg sax du du soxlaa tuuti saaga am ñu seen maître kat bu mag. mu mu dagg dañ léeg-léeg dañ dañ dañ koy parce que de xam nga wax xam-xam xam-xam da koy wax. ki nga xamante ni moom euh, ciseau la di maître. nga wuti ciseau bu baax jox euh, jox ko kooku tamit mu maître parce que am na ko xam nga bis euh, bi problème yi amee gàmm. dama wax gaa yi ma leen lii ngeen di wax yëpp ma gis sunu. Euh, ñooñu ñuy tuddee xaw ma lan moy télé du problème amee ñi ñuy woo ñuy wax consultants yi ak ah, experts man leen ñi ay nular lañ ñi expliquer na xaw ma lan ki man leen yaaya Jammeh mm-hmm. du militaire bu bu bu bu bu fakkastalu ci armée mm-hmm. c'est un militaire dans l'âme mm-hmm. comme Idriss Déby mi ak euh, am na ñoo xamanteni ils sont militaires dans l'âme man mu ne ma ma ne ko il n'entend que le bruit des armes man leen diplomatie waxtan mu mohamedou Ould Abdel ñew ki bak man len du dégg il n'entend que le bruit des armes mais gis nga bi gaay makki jele hélicoptère ou CEDEAO yi ñu romb palais bi ben yoon rombat ko dafa jëli bagage am ne ma ngi ñew <laughs> parce que pourtant appel téléphone yëpp dugg na du wuyu du dégg parce que du dégg lu dul bruit arme yëf non la démé ku ci nekk

ñu arrangé wu mais dañuy bind saga ba mu sof léeg-léeg ñu lijjanti sa téléphone mel ni ku lay ziar ziar bu baax ba noppi ziaraat la jaafu ba yooyu da ngay encaissé xam ni tu peux pas satisfaire tout le monde waaw donc yooyu yëpp moo koy encaissé moo koy angu mooy jël les premiers coups ah ñu ni léeg ñu jël coups yi ba mu safte parce que léeg-léeg gars yi wax na yu tàng mais da ngay xam ni ku bëgg akara da ngay ñeme kaan ni waaw mu bokk am loo xamante ne duy am li ma waxoon sunu mag yi sëñ sëñ Cissé da ngay nettali fépp di yàq sama der quoi sëñ Cissé mooy sama taw papa moom la tuddee Pape Cissé dafa am sunu benn mbokk mu mu gaañu quoi ñu léegi ñu war a dem ci sëg yi guddi mm-hmm. guddi ci sëg yi pour war koo denc quoi accident bu métti la woon léegi ñu ñuy dox ci dugg ci biir sëñ yi rek sëñ Cissé ne ma sëñ ma bisimilah jiitul dama kii jiit ma ne ko jiituwuma. <laughs> <laughs> ñun ñëpp dañ ko rus quoi. mooy wax ko ko ndànk xam naa dama ko waxee ci kaw mu indi problème bu rëy. mu yow. yow ma dem ñu dem di ji réew mi mën ko du jiitu jiitu ma. mu ne ma wax tax ma ne ko du fi addee di addee dikkoon fii kat kan lañ koy teg ci loxoom. mu ne ah ma ne ko addee million kuñ koy teg ci loxoom fii ñun ñëpp njëgën nañ sant ñun ñëpp ci famille bi lañ bokk sëkk waaye du addee million ñoom kan lañ koy jox fii. Eh, ah ah million ma ko ma ne ko yow lañ koy jox ma ne ko kon kon kon ndoxu ndoxu biir sigi ci guddi gii lamp amul ma ne ko njëgeen yaa ko jiite <laughs> nga keroog dóor yi ma siise dóor ci biir doo àdduna bi foo wax ni day dóore duñ ko gëm xam ko kooku neex na xeexal fi ne nii koo <laughs> day dóore doo gëm te keroog dóor yi ma dóor ci biir ne ma yow yaa yàqu taari yi ma ne ko wallaahi ma la xam nga ni njëgën dëgg la kuy jël addiye kay yaa war a jël coono di la ah sëñ bi sëñ bi gisoo man tey jii wax ju bëri ji maa ko yor te maa ngi woor du addiye ji dikkoon maa koy jël sëñ Seydou mii ab benn dix euro laa koy laa koy laa

yow ñàkk fayda yow ma dagg nga même garab gi la dagg nga ma dagg mais lekkal te dem ma nit ma lekk te dem su ëllëgee yow ma xiyam ku nekk loo am jëm ah nag doo ñàkkee bopp nag gars dañuy wër di coow di wax di wax ba nga weddi sa bopp yow ba nga jàpp ne yoroo dara waaw loolu nag baaxul

Nó mệt băng hết, tao biết tao đấy. À sao mà? Em buồn dài đồ hắn. Em đi diện. Tu la représentes dignement. Voilà ko tu la représentes dignement. Masha Allah. Yow ñëpp nga représenté Adja ak Fatma. Waaw ñëpp nga nga représenté. Ñëpp ak Soxna Anna ñoom ñëpp. ñëpp nga représenté dignement. Masha Allah. Ah kon nag di leen sant rek di leen gërëm.

waaw xam naa loolu laa si bëggoon war di sant aussi Seydou moom moom dama koy sant bu baax dèjà dafay taxaw bu baax sama góor da moom c'est sûr moom la fi gën a jege ma ci xam moom laa ko a a jege tout le temps si ay waxam lépp lu mu xam moom lay yu baax aussi ñoom monsieur Amina moom moom macha allah comme ni ko waxee rek bu ñu bu ñu gëjee déggante nekk jël sa nouvelle morom comme comme ni ko sëñ bi fay bi defee rek

xanaa mu gën a yokk rek gën a góorgóorlu. mu yokk loxo. xam nga lii la ilaha nee na cere ñu yokk rek kon na mi yokk. mu waay.

ni duñ la duñ la sant dañ lay ñaanal loolu la ñu wax moo tax ñu lay ñaanal buñ la mën a sant aussi sant la waaw ñu lay ñu lay ñaanal bu baax a baax a baax di la di la gërëm aussi di la gërëm di la di la wax ni sëy moom voilà

éducation yi ngeen recevoir bokkul. parce que yaay si lii ñëw tout le temps si événement doo ko waxtaan rek waxtaan waxtaan waxtaan jàppalante yàlla li sama daal daan def incha allah ci loolu lay ci loolu lay dox. bëgguma ëllëg si biir lépp lu ma la war a mën a wax ma ma koy nëbb sa papa loolu bëgguma ko bëgg naa ëllëg si biir lépp lu ma la wax bu ma eh, toogee ci penc mën kaa wax waaw loolu loolu moom bëgg naa ko waaw te dama koy doxee te yal na yàlla jàppale ma ci bu baax waaw moom xam daal instant des responsable lañ ko xase ba am doom moom daanaka do sa bopp mm. waaw do sa bopp da nga war di da nga war di da nga war di def lu baax parce que xale moom moom li nga li nga li ngay def rek loolu lay recopier loolu lay recopier tey tey surtout aussi donc mu ngi noonu góorgóorlu rek dolli yal na yàlla jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax waaw mu ngi noonu incha allah mm-hmm. rafet na mm-hmm. rafet na mm-hmm. c'est important xam nga toujours fii bon Sénégal problème de culture la loolu ah, man mais fii ku ñuy maye damay wax ne dañoo toog ñoo toog waaw ñu toog mbër ki dem charge dañu ñoo toog nii nous posé des questions lourdes parce qu'il y a de ces choses qui se dégagent il y a des émotions qui ne ni pas les ko ba mhm. mais quand tu le vis tu le vis personnellement mhm. mais loolu dafa grave mhm. on l'a vécu à chaque après tu veux bëri racine daf ko daf coupé ah, c'était très très très très émouvant wallahi tout le monde était affecté waaw ah, vraiment wax yu daw yaram

nit bala ngaa xam valeur mu dee soxna bala ngaa xam valeur nga wàcc ko jëkkër bala ngaa xam valeur nga wàcc mu nga ñaan ko baal loolu c'est très très très grave nit da war a def effort ba li nga war a xam nga xam ko xam valeur bi nga téye ko soo gisee boobu ba tey ñuy feeñal ay affaire maire bi am luñ ñu feeñal ñu am lu ñu feeñal Thierno Racine am lu ñu kii am luñ ñu feeñal mais dafa am ay valeur tu n'es pas n'importe quel homme mu déedéet bu dee yow sa histoire ak fini djogé mais kon kon ki bu la bëggee comme copine mi ni ñuy jàppee seen jëkkër bëgg la considérer comme copine mi ni ñuy sen seen mais gaañu parce que un jour elle va se rendre compte que elle a pas affaire à n'importe qui te bobu c'est trop tard parce que bobu lu nekk mëna am mën nga changer idée yi mën nga wax né non ki xamul àdduna ki day doon toflu daal dem def sa affaire sëriñ sa ñeent ñetti jabar loolu la ci je le souhaite jamais nag ba àjjana waxin la rek waaw ba àjjana incha allah même àjjana sax wala dégg na la ma wala ba àjjana sax pour ay nii nañ taxaw fee yéen ñaar rek du noonu ma non naa partagé incha ak ak ay nii sa ne ne mais mais mais mais mais Serigne kon train de quoi ko fiir ba dafa am solo c'est la même chose pour la pour la femme aussi les nga am ko ni mu di def lu ne c'est jamais suffisant mais du pousser la nga xam ko njabootu direct Cheikh Cheikh Omar ne ba ñaar fekk ñaar vingt cinquième sëtam ku ñuy àndal moom moo leen di tànn waaw nee na yàlla wan na ko sëtam yëpp kenn ku ci nekk mooy tànn ñi ñi ànd ak yow ñi ànd ak sët boobu ba vingt cinquième sëtam kii mënul sax nekk dixième. wala man leen du vingt cinq ba ak yooyu rek àdduna tukki ah rajo mathématicien c'est ça tu mooy tànn ay ñi ànd ak ay sëtam. Ah, yo loolu mooy valeur yi moo tax moo tax sànq ma junj leen ne leen bu leen sëy sëyu xale yi bu que doo sëyee sëyu xale yi lii dal xale yi dal la. soone nak da nga bëgg sëy sëyu mag sëyu kilifa xam ni la war xam ni nga wara doxale gérer toxal waaw le dal ma ko dal la bul sëy sëyu tubaab aussi so sëy sey tuba aussi lii dal tuba yi dal léegi nag tuba yi ak ci tey am lu ci wax jëlal nga téye mak ñi seen sëy lépp ba baax jëlal lépp yo kan mo kan mo lay mëna a kenn du la mëna a xam nga tey ji day melni xale yi nekk fi ni

bàyyi xel li ci des moom jarul wax moom dala koy delloo waaw surtout nag góoru léegi neen noonu lañ mel dañ lay déglu rek dañ lay déglu rek noo doxalee rek ñu noonu waaw si tu la douce yaa leen moom mais si tu fais la dure nag ah di koy saalum saalum ñu day dikk de <laughs> day ku mel noonu nag yow mën nañoo lijjanti

yow xamoo mais sa yaay ak say papa ñoo dem lijjanti nga yaakaar ni ñoom it lijjanti wu ñu la bañ <laughs> mooy kilifa tey jii du